نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakaatuhu noo ngi نيو نيو nuyu nuyu jullit ak moroom di leen sant fa seeni waxtaan waxtaanu diine billahi wa rasulihi waxtaanu lislaam bi nga xam ne moom la ñu bokk di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ma ñaan waxtaan wi ñu tànn seen sujet mu di tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba maanaam tasawuf ak Serigne Touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jege xeli ñépp nekul loo xam ne mën nañ koo dal di waxtaane nit jóge fee rek ak si dal di koy dégg nañu ko waxe ndax lu xaw làqu la lu jafe la lu néew la itam rawatina jamono bi nu nekk kon bala nuy waxtaan tasawuf dana am lu ñuy wax tam it maanaam introduction tàmbali boo xam ne day leeral li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara buñ ko waxee nga mën am loo ci dégg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane woo diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine mooy ciy lan fu mu jóge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jële lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu te nu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal bu nu neexee bu nu dee wax xamuk fànn yooyu nu ne tawxiid fiq tasawuf liimaan mooy gëm jullit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam nan la gëm di wére loolu lañ tuddee tawxiid xam nañ ne téere yi dañu jàngale tawxiit lépp li nga xam ne mooy melow yàlla melowoo doom aadama war ko xam li jomb ci moom li dagan ci moom li war ci moom ak nin ko war a fase yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom lan moo war ci ñoom lan moo xaram ci ñoom nu jàppal leen ko malaayikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba sunu gëm wér iman day maanaam gëm neenu i'tiqaadun bil qalbi wa qawlun bil lisaani wa amalun bil jawaarixi dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko ci sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko nu jëfe ko sunuy cër loolu moo dajale tawxid ak fiq tasawuf ñëwagul xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nee ñu dana war na dogu ci amug yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbalewul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko sob dong ngay daw ci nguur gi moom dong nga bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbalewu ko kenn fekku ko ca coobaram dong mooy daw ci jaam ñi nga daal gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faaw nga gëm téere yooyu seenug am faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñii mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xoon nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañuy sell yu mu bind ci leeru kese ñu moy mukk yàlla duñu lekk ñu naan ñu sëy amuñu bànneex ñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla dig te wax ko ci alquran jaam ñëpp dañuy dekki gëm dogal bi lépp lu am yàllaa ko dogal amul benn pepp sarra wala fepp suuf wuy randu jóge ci palaasam lu néew néew te yàlla la soob mu nam ko dogal ko gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peese ji fi jaam ñu ëllëg la ci bis bu màgg boobale am na pom bu ñu tuddee siraat jaam ñi daañu ko jéggi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam bi daañu ca naan ëllëg ku ca naan dootoo marati mukk ba abada àjjana am na ak safara fukk yooyu mooy tawxid teewul nag sax nit ki bu ko fasee ni ko wax xam ne yooyu yëpp am na daanu nangu imaanam ne jullit la duñ ko e-, mun sañu ko excommunier maanaam sañu ko génne ci biir communauté musulmane bi waaye nag li ñuy wax tabdi maanaam bidaa nga fu ci kaw namu fase yooyu bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te boolewu ci benn bidaa ni ki secte yi ñu tuddee dissidente yu demee ni ki mu'taziluna yi wala ñu demee ni rawafid yi wala qadari yoone yi wala yenn chia yi dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati maanaam pas pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ci sikk waaye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doomu aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm ku nga gëm ci xolam wax ko ci làmmiñam doyul waaye xamuk loolu lañu ñu tuddee bu fekkee ne nag dikk na xam xamle boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def lislaam lii man la amoon léegi am na l'islam lislaam moo di fiq moo ko àtte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi a mu di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gëmee ko noonu mu ko waxee fiq nag mooy atte muamalaat yi ak ibadaat yi muamalaat yi mooy jëflante doomu aadama yi bokk nekk ci kaw suuf seen diggante di ko atte diggante nañu war a jaayante nañu war a jëndante nañu war a defee ay contrat nañu war a atte ay société nañu war a séye nañu war a dëkke loolu yépp ba ci ibadaat yi nga xam ne mooy nanu war a jaamoo na nga war a woore na nga war a jullee na nga wara joxe asaka na nga wara a mur mu koor moy ibadat yi xam-xam bi nga xam mo traité ñaar yooyu muamalaat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman am bu wote alquran waxna yurtu majid, qalat al arab amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna sàmm si dañu ne gëm nañu ne leen gëmu leen kay da ngeen a nekk ci biir jullit ñi rek atte yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne jullit ngeen xam-xam boobu ñu tuddee fiqh bi nga xamee mooy yéwénal jëf yi ku ko xamul say jëf du mën a rafet loolu moo tax ni mu lay jàngalee na ngay jëfanteeg sa moroom doomu aadama jàngam la na ngay jaamoo sa boroom foofu rek la kon du li nga xamne moy amé muccu jam bi deug deug ndax nit ki man julli di wor di def li julli bi ñuy def lepp te du deug ci mom ndax xam-xamu fiq nit ko xamne aduna rek la bëgg man na ba xam ko ben, ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol fi nga xamne ci la gàttañ du xam-xamu fiq rek ci la yam bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab alakhiram tek ko ci kaw addunaam diko ko xalaat fu mu tollu borom xam-xam bobu nga xamne xamna xam te soxla wowul tasawuf xam-xam bi mën na koo jëmee ci werante rek ak dàggee mën na koy puukarewoo mën na ci rëy lu ci kaw jaami yàlla yi amaan sax mu defe ne loolu mu xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekku fu bu ko defee ak perte la koy dikkal ëllëg ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr ci saaba yi seen jamono bi ñu fi nekkee buñ masee ne diw day ku xam diine la mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid fiq tasawuf lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko trop kenn nit rek féetewoo lépp di ko jàng dana bari ci mom ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxassus manam rek euh, ñi wo jang tawhid rek ñi wo jang fiqh ñi wo jang tasawuf lolu motax ñen ñi nga xamni fiqh rek lañ xam japp ne ñom li ñu xam moy xam-xam bi dong doyna la rek pour nga xam diggante fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamu yàlla gu mu doon fiq daf nan la bo xabe ndox mo xamne ne dara ci mom du melom du xetam du tiafkam nga jappé ko jublu penku kabar sutural sa awra béréb bi nga nek laab li nga sol laab nga jang fati ak saar rukkoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñent rakka muy tisbar wala ge, def nga li la waroon kenn amatul lum lay wax fofu mo lay xamal ne la legi julli ya legi yalla la limuy jeriñ moy raxas xolub jambi bi ngay japp lu ñu sant la ndox mo xamne dara jaxasoowul ak moom ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye rawxaaniye nu ma leen ko mën a tekkee ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërmande yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba gi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree wan nga ne da yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmal moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli fuqaha yi ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaambur ci biir julli ngeen di julli xaalisam wadd danga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari wëlbati koo won gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo araamit it sa julli wér na lépp loo mën a def te sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kabare ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la fay ndax neen la bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi deeyaaleeg moom alxuraan ji ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu bi nga rukkoo lunk gi nga lunk da lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toroxlu googu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci sa xol boo sujjootee itam li tax yonent bi sallallahu taala wa sallam ja ne jaam waxtu mu gën a jegee boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg wane nga ne wàcc nga wane nga ne yaa ngi toroxlu wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xaq kenn ma ko mëne sharia moo lay xamal ne la xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis ne mu sangu ci juróom yoon wala bis bu ne ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonentu yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme day laabal xol ki muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toroxlu defe ko nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada ji mu ko aada woo tàmm rek day kabar xelam di dem ci yeneen ba bu muy sëlmal kooku bu ko boroom fiq yi nee sa julli wér na it waa daa daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee almuminul xaq jullit dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxiid jàng sax ba noppi balay soobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyeem itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax lislaam lim nu njëkk a sant muñu ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam nee na ak sabru nisful imaan yi mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqarin ni ko waree ci lu metti ware ko ci naqar lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko waree ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñe ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da nga ko sant na ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puuk réew ci kaw kenn dangay ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci boppam maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj noonu naafil la noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw am na waajtaay mu war a waajoo ba dugg ci julli gi te bu duggee si julli gi it am na lu ñu ko sant loolu dañ ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf ndax nit ki mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am nag doyadi goo xam ne na war a teewloo ci julli mënuloo ko waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg ci julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yéwénal sallallahu taala wa sallam génn na jëm ca jàkka ja ba mu demee ba ci yoon wi mu dal wax ku ñu wax Usmaan ibnu Talha man de fàtte woon nela ne la nga xoram kadir ga ba nu fay jóge ndax day bañ bu nekkee ci julli gi ju bu nekké ci julli gi moom usman wala ka nga xamné Usman ibn Talha la wax wala keneen ko xamné fekke woon na loola te dana lek ci ñam wa xelam dem ci kadir ga loolu motax wala wax naan bu julli téwé reer téw nañu jital reer ndax sa xel bañ ca dem gannaaw julli kon déeyaaleeg yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delo ci aduna wala mu di ci delo sa xel war nga ko dag ba nopi boko dagge danga mën a julli mu des nag wasaawisu seytaane maanaam jax-jaxal bi seytaane di jax-jaxal ci sa xol loolu li koy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fàttaliku waxtu woo xame ne tërën lañu la ci sa bunt bàmmeel war ngay bàyyi xel ci laaj to bi ñu lay laaj ci sa bàmmeel ñaari malaayika yi war ngay xalaat bis pénc boo taxawee ci kanam yàlla loolu moo tax yonent bi ne nit day dana julli ba sëlmal te duñ ko bindal sax genn wàllu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax di ko wax di wéy di wàññi ba nga xam ne dana wane ne nit ki daal xam nañ ne julli gi coono bi rek la ci am. naka noonu asaka mu ñëw tax nit génne ko ne ñu alal shaqiqu rooxi dafa sax ci roox lii tax nit ki génne ko gëm yàlla dëgg lay doon waaye bu xamee ne day laabal li des ci alalam. day laabal xolam te ngeureumal yalla la ci wut dana am muñ googu nga xamne ne tax mu meuna genné asaka doom adama bëgg la te bérébam ci nit moy xol ku nek xam na ne xol moy bëgg liman manam ngëm itam fii bérébam ci nit moy xol ñaar buñu ñu lenn di ko te moy alal wala bëgg aduna muy xëccio xol mook ngëm la ëpp doole rek moy wat bi sallallahu taala wa sallam ne raaytu abdurahman ibnu awfin a jannata xabwan gis naa saaba bu ñuy wax abdurahman ibnu awf muy raam di dugg àjjana xulamaa yi duñ ko firee moo di dañ ne abdurahman ibnu awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la e li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xamee Seydina Abdourahmaan ibn Awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc di delloo si àdduna waaye ngëmam moo gën a for neexa neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana waaye fu gën a for gi mu ko gën a for teewul mu di ko delloo si ba ab demam yéexa ne kuy raam muy raam di dugg àjjana kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xel kat moom ah, alalam ji muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ te bu ko deful loram la bu ko defee it njëriñam la ëllëg te fam koy jëriñee foofa la njëriñ di neexe kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war-waru yàlla boobu naka noonu koor ki bu te li mu bëgg lépp di ko gis man koo muñ eh, muñ doo nga ko koy may moo tax yonent bi ne ne asabru nisful imaani kon jullit war na yéene jiw fu mu toll di ko yéene ñëpp war nay digle lu baax di tere lu bon fu mu toll ndax képp koo xam ne nee ñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla na nga seet sa fan la ca yàlla toll gannaaw képp ci nun ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ñu nga dëkkaale loon ca àdduna xaqi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet daañu la laaj sa xaqi doom ndax am na yoo xam ne doom ak waajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na leen waroon na taxawoo la nga leen a defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli la ñu ne yow loolu moo tax yàlla ne wallazina jaahadu fii naa lanaa diyaanum subulanaa gaa ñi nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon dina ma ñettaq lay ca lawu maxrajan képp ku ragal yàlla na ko war a ragale suñu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikk yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit war na ragal boromam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbati ko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy sax waayam na xam ne xel la ay sax rek ñoo koy wéttali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu rag la yooyu ñuy wax mun ko munkar na nakiir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez-vous bi maanaam fa muy kañ lay jugati mooy saa yomal xiyaam rek te boobaa bu fa jógee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor na lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'dal mawti ki am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toroxal na ba kanam te xeex ay bànneexam ba wuute ñoom te jëf ngir la nekk ca gannaaw de moo tax suñu borom bi net faraba linaasi xisaabuhum wa hum fi xablatin doona bis bi ñuy xisaab nit ñi mu ngi gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di ko gën a wan gannaaw adduna géej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap ba wattuwul delu ci wat ndax lab ci aduna day sagan lo xol sallallahu alaihi wasallam neena yashibu ibn adama wa yashibu ma'ahu khaslatan al-hirs wa tul al-amal doom dama lu mu magat magat lu mu yag yag ci aduna amna ñaari jikko ño xamne du tagu mu mom lay magatalé modi xër ak mébét mu gudd neena walaw kana limni adama wadiyan min zahabin labtaxalahuma saalisan doom dama ku xër la bu fekkone nit amna ñaari xur ñu fessalal ko ko del ak wurus faw xelam dem ci weneen xur ko ñetteel nee na biiru doomu aadama daal suuf rek a ko mën a jomp nee na ma annaasi ni yamuutu nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al axar am na ci nit ñi ñoo xam ne raw nañu raw goo xam ne bu seen genn wàll deewoon ba dee koy itam genn wàll gi ci def du tax ñu jàjj mukk dellu si dañuy wéy rek waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg te adduna mom la yalla gëna a wayafal ci magum yo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nay dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xar mu de ñu sanni ko mu nepp ba kenn mënu ko jégé mu ne xamna xar mi day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanni ko fi mu ne mu ne day ni suñu borom soxla de aduna mo raw mo raw ni ñu soxla de seen xar mii waaw nenu àdduna ba nga xamee ne dañ koo peese ak laafu yoo laafum yoo mu wat ko fa yàlla bu fekkonte ne yem naag moom rek kon yéefar du ci mos benn góox waaye bu fekkee ne nit ki loolu lépp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yàlla sant ndax mu mën koo rafetal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom dana xañ nit àdduna bu yomal xiyaamee bu koy fay ne ko adduna ji kat li la ko xagne won dembu du dara lu dul fonk gi mala fonk rek ak doyadil gi ma doyadil aduna motax ma ëppale la ko na dom aadama bi bu fekkee ne bëgg naa nekk jullit bu ragal yàlla na xalam di xalal dem ci sukrat de ak xar-xarle na xalam di dem ci waxtu nga xamene yaramam sottiku kuna ba metti di tassaro ci cëram yep te ben ci rek bu de metti xagn ko jam waxtu wo xamene nak rawati na cëram yep metti di làmb na ko biir ak biti ba ñaari nag yi bëtam yooyu bokk ko jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lamiñam wi wobu ci biir gémmiñam ba cëram yooyu yëpp commencé de ba ñaari tànkam ni di sedd ba muy àgg ci putam mi foofu ay mbóot am na fi ak i secret yoo xam ne suñu borom dong nga ko xam ci waxtu wow la ñuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbatu lillazina ya'maluna السواء بجهالة ثم يتوب من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان عليم وليس لتوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا أدرى أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار القرآن nee na tuub ki nga xam ne dafa def lu bon gannaaw gi mu jàjju dellu siwaat la ko yàlla may waaye du ki nga xam ne dafa nuur ci lu bon ba nga xam ne dee taxaw na mu soog ne léegi tuub naa loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëmm ji tolloo foofu dañuy ub buntu tuubam lu mu tuubati léegi desatu ko nangu ndax foofu ci waxtu woowu la naan jàkk malaayika malakul mawti bi nga xam ne moo koy faat si mu ne bu laaj mukk wextanu dee bu laaj mukk tiisu dee ndax sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd ci suñu borom lépp ak li mu koy fonk nga xam ne li mu bind lépp moo ko ci gënal dafa daan ñaan suñu borom di ko waye falal wextanu de ak tiisu de jëlee nañ ci alxasan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa neen doon na waxtaane dee ak tiisam ba mu ne ñetti téeméeri jaas yi la dóor dee ko gën a metti mu ne dee gi gën a woyof mu mel ne lu ñuy wax xaska ci arab suwent la ko tubaab di wax moo di gis nga euh, xar moom nga xam ne dafa duuf ba duufa duuf am leen ci ci gannaaw gi mu tëdd tàngaay bi jàpp ko ba graisse gi seet ba taq ci leen bi ba wow ba ñuul loolu mooy xasaka mooy suwent boo ko jàppoon di ko xëcc ci xar mi leen bi càmpoori leen yi dagg topp ci nee na bu ñuy rocci ruu gi noonu la demee fépp fu nekk ci yaram la nga xam ne moo ci gën a yëg metit noonu lay toppee ruux gi Seydina Omar radiyallahu anhu naka la deemel daf ne ko caru garab boo xam ne dafa fees ci dëkk ci biir nit ki ba ak bépp barab ci biir yaram bi dëkk siiw na ca bonkal mu am doole ñibluwu ko ni ko bif benn yoon noonu la mel gis ne kon ti si ñett yii la benn bu njëkk bi mooy rocc ru googu ñu wax ñaareel bi mooy janloog malakul mawti malakul mawti lu doy waar la waxtu woo xamee ne jaam bi ne na ko jàkk xamatul fu mu nekk xolam sax day bëgg a seey xam ngeen ne xel li jinne sax boo ko gisee te mu fas li yéenee saay saaye doo ko mën a dékku benn sa xel dana réer wala nga dof rawatina malaaka rawatina nag malaaka mi nga xam ne yàlla daf koo xaroo pour ay noonam rek mu di leen naqaral di leen tiisal Seydina Jibril li mu ñëw ci moom lépp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gën a bari ku ñu wax dexeetu alkël bi meloom la daan indi waaye ñaari yoon wala ñett la ko mas a gis ci melaw ko yàlla bind dëgg dëgg te sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee Seydina Jibril ci melaw ko yàlla bind dëgg dafa xëm ba mu ximbali ko Seydina Jibril ne ko ay ngal la kon boo gisoon Mikaayil na ngay def Seydina Ibrahima alayhi salaam mas na laaj malakul mawti ne ko dama bëgg nga wan ma melo wi ngay dikkee boo dee rocci ruuxu ku texe di mu ne ko loolu àttanoo ko bu ma la ko wanee nga dee mu ne ko man bëgg naa wan ma rek mën naa ko bi mu ko feeñoo bi mu xamee xama xama xama xam ay saa bi mu ximli ko dafa ne giñ naa ne suñu borom bu amuloon benn mbugal bu muy mbugal ku ko moy lu dul xool la yow mii rek doy na sëkk kon ci mbugal googu la kon ñetti tiis yooyu mooy tiis yi dee jullit bu ne war na koy fàttaliku waaye waxtu woo xam ne ruugaa ngi rocciku li nit ki njëkk a gis lan lay njëkk a jan mooy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana meloo meloo xam ne daan ko waxtaane jëf yu benn yi dana meloo meloo xam ne gaaw dem dugg safara sax a gën a moo koy gën a jàkkaarloo ñoom ndax rek ak tiis ak xasaw ak naqari ak rëglu loolu lépp lu ne téere bu nekkoon ci xolam mooyam yooyu yëpp bind nañ ko ci waaye attache terrestre yi ko eh, dot ci adduna bi ba tax na nekkul esprit kese moo tax mënu ko woon a gis boobu nag waxtu bi mu tolloo foofu te suñu borom nekk fa kachaf naa anka ripaak fa basaruka al yawma hadidun sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu niyaamun fa iza maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ la ñuy dee kañ la ñuy yeewu xanaa bu ñu dee ndax bi mu duggee ci yaram te yaram di ko dëkk fii ci suuf ñu tabaxi ko ci ban ruux moom bokk ci aalamul malakut di ca leeru yàlla nga xam ne umpalewul dara day xam lépp day nekk fépp kàtt dami mënee su ko waxtaane bi nga xamee ne roox dugg na ci daal di nekk ci kaso goo xam ne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisee dara booba la fàtte ya mu xamoon ci fu mu dëkkoon démb yépp ba daal di nekk nii nga xam ne noonu doom la noonu la doomu aadama di melee nga xam ne xamul dara ci ëllëg lu ko weesu du ko xam lu ko sori du ko xam loo xam ne miir dox na diggante moom du ko gis waaye waxtu woo xamee ne mu ngi dee ba toll foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day janloog adduna bépp day mel ne moom bëti kese dong dong dong la bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu janloog ñoom jëf yu ñaaw yi mbugal la ci moom na mu koy gisee dana doy waar wa ruux nee ñu sax euh, ulama yi dañ ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko ko laajee suñu borom mayu ko woon ndigalal mu waxtaane ko beneen jàmm sañu ko waxtaane ndax secret yàlla la waaye mu xaqiqoona yi dem nañ nee ñu am na maanaam juróomi rapport yu mu am ak yaram ku nekk xam na ne euh, doom aadama bi mu nekkee ci biiru ndeyam rapport diggante ruux ak yaramam na muy demee bokkul ak bu juddoo bu juddoo itam di dund yeewu nelawul rapport bi ruux gi di am ak yaram bi buy dana wuuteeg buy nelaw buy nelaw beneen rapport lay doon naka noonu itam waxtu woo xamee ne dee bu ñu roccee ruuxam ba mu dugg ci bàmmeel muy dund dund barsax foofa itam geneenu dund lay doon leer na nu ne rek li nu def tekkal moo di lu nekk yàlla wax na ko akub yonentam ci jëmm ji bu nekkee barsax ci xéewal ak ci mbugal donte yaram wi ràpp na ba suuf rekk fa ne it ndax xam nañ ne boo tiimee kuy nelaw mën na gént gënt yu tiis mu nekk ci musiba mën na gént gënt yu neex yu rafet mu nekk ci xéewal waaye yow mi ko tiim doo ci dara noonu mu lay umpet xam ne yaa ngi janloog yaram wi rawatina ka nga xam ne nag dem na ba ràpp ba nekk suufas kese la muy nekkee yow mi koy tiim loo xam moo xam dafa def suuf moo xam dafa nekk ci biiru eh, njaa àll yi ko lekkoon wala ay tan wala lu mu mën a doon rek secret yàllaa ngi foofu boo xam ne bu ñu demee ba ca kanam ba ci tasawuf daanu am lu nu waxtaane tuuti jullit bi bu bëggee nekk jullit dëgg mel na war a mel war nay def xelam ci a nafxu fi suuri bu ñuy ëf bufta bi sallallahu taala wa sallam ak bi alxuraan ne laa taatikumu illaa baxtatan du ñëw mukk lu dul mbetteel ah dana fekk nee ñaari nit jàppoo piis di ko mettre di ko jaay biñ ko lemaat sax bu fi tëbee ëf nit dana tàmbali tabax mbal di raax mbalkaam du àggale sax raax ba maanaam daal lu la fekk folo la fa lay doxe xam ne kon foofu science jëmu fi bu ñu seetee xam ne économiste yi fi ñuy xalaatee maanaam tukkital adduna ci dem ba seen amatul loo lekk géologue yi fi ñu koy xalaate ak astronomie ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ca fa ngay spécialisé ngay xalaat dégg nga di ko taxawuk saa waaye di nga xam ne noonu la ko mu xaqiqoona yi xamee dëgg-dëgg ñoom wuti nag yooyu yëpp ñoom ñoo gis li nga xam ne moom la yàlla xibaar ak bu yonentam alayhi salaam naka noonu gis nga li ñuy wax les savants atomistes noonu ñu dessiné seen montre bi ñu tuddee horloge de la fin du temps nga xam ne diggante mille neuf cent quarante huit quarante huit ak léegi réglé nañ ko fi ñeenti yoon bépp boo xam ne événement bu mën a tukkal adduna moo xam bi nga arme nucléaire la bu ñu inventé wala loo xam ne la xam ne ni mën a tukkal adduna ñu avancé montre bi mu wuti minuit waxtu woo xamee ne lu indi paix wala leneen loo xam ne découvrir nañ ko wala ñu inventé lu war a mën a indi itam jàmm war a mën a dëfal adduna ñu dellu ko retardé ba nga xam ne dañu ne bu àggee ci min wi la saa di taxaw loolu yépp ay xalaat la lu ñu tuddee tax miin rek la ak i njort waaye du li nga xam ne mooy am dëgg li am dëgg mooy li nga xam ne moom la ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ba seen xol set ba ñuy janloog lawxul mahfuz xam la fa ne dégg alquran yàlla may leen dégg wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam li ñu wax mooy dëgg te ñoo ñoo ko xam gis nañ ne buñ ne kon julit bi ngir mu nekk julit dëgg war nay def xelam itam ci annafxu fi suuri boobu ñu waxoon Israfil mi nga xam ne mooy ëf bufta bi nank seex na ba tey maanaam trompette bi nga xam ne moom lay ëf muy bufta bi du déglu lu ndigalal yàlla bis boo xamee ne suñu borom jox na ko ndigal ba mu ne ko ëf bu keroogee baat bu tir boobu bu tiis boobu dana tax njaa àll yi sax tiit bay ñëw ci kër gi di wettalikoo si nit ñi day gën a tar rek lu mu gën a wéy ba ba àdduna bépp di raaf lépp lu tooyoon wow lu doon dund dee فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة في الوهم الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة بوبا نفخ بنجك بي nga xamne manam اف بوفت بنجك بي صلى سنو بروم تبارك وتعالى وحتي القران نه بوبا ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله نيمو سيتي ني رك ньо دول تيت موي نينتي ملائكه موي سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا اسرائيل سيدنا اسرافيل ньо nga xamne ньо مڠو وون ميري جامني bu ko defee ñoom ñeent rek ñooy nekk di dund suñu borom dal di digal Israil mu dal di rocci rooxu Jibril dal di rocci rooxu Israfil rocci rooxu Mikail moom dong mu ne jëmm taxaw ba mu desee suñu borom dal koy digal mu dee ñeen fukki at jaam yàlla yépp nekk barsax dara du yëngu lu dul suñu borom waaye taw ci rabbika zul jalaali wal ikraam bu boobaa ñu daal di ëf ëfum ñaareel ba su mënu faxe fii oxra fa ida hum qiyamun yanzuruna jëmm yépp daal di ñokket jóg taxaw di xaar nag mbirum suñu borom loolu lañ tudde baax mu def xasra suñu borom fa nga leen nag mu jëm ci bërëb ba nga xam ne ci lañuy ñuy war a daje béréb boobule déggoon nga li li ñuy wax siraat mooy pom bi nga xam ne ñu ko jéggi te jaam ñi ñu ngi koy jéggi ci seen kem seeni jëf ak kem seenu leer leer du ko dara du ko joxe lu dul imaan ngëm goo gëm rek sallallahu alayhi wa sallam nee na li ko ci koo xam ne leeram day toll ne montagne boo xam ne doo xam fu mu yemee leer nañ muy jaar ci leer googu keneen ñëw gën koo néewle leer ba àgg ci koo xam ne ñaari baaraam yi day tànkam yi lay am lu naan xay bu ne ray mu dox bu ne kamac mu taxaw jéggi googu ñuy jéggi siraat ci kem rek ni seen ngëm dëgëre woon yàgg na dégg ñu naan dafa seene karaw dafa yëngoone jaan dafa tiim safara yéeg bi nangami téeméeri at la tàllalu bi noonu wàcc bi noonu loolu lépp téemaanu yàlla la nan ko gëm noonu ko yonent bi sallallahu alayhi waxe ak ni ko alxuraan waxe am na jaam yoo xam ne dañ koy jéggi mel ne xefinu bët fi bët bi di dale ci mbar mi fi mbar mi di dale ci mbar mi ak fi muy xippee noonu rek la ñuy gaale ak ñoo xam ne dañu mel ne melax ak ñoo xam ne dañ mel ne nii wow nga xam ne ngelaw luy riddi moo ko puus muy dem ñi mel ne biddiw bu fàq ci gaawaay ñi mel ne fas fas wuy daw ñii di raam sukk di bafangu ñii defeenu këpp seen xar kanam ñëpp ñuy jàll loolu lépp rawante gi ñu rawante ci ngëm moo ko waral moo waral ñu wet na ñii seenu leer mu ngi mel ne làmp ñii mel ne sondeel ñii mel ne weer leeru ngëmu yonante yi mu ngi mel ne jant bi loolu ñu wax yomal xiyaam nag waxtu wo xamee ne fang nañu jaam ñi ñu nek xufatan ñi fandañu kenn du sol dal oraatan ñu rafle lañuy doon buñ sol dara xurralan dara du jóg ci ñom ni leen seen day jure won bu fekkee ne góor la du gul gul ne gu góor lay mel bu dee jigéen nonu ñu jëm ca bërepp ba nga xamne ci lañuy daje boba nak du suuf sun borom nee na yuma ardu lardu al ardi was samawati wa barazu lillahi alwahid alqahari bi sallallahu alayhi wa sallam di net lolu soxnaan suñu wax sawda ne ko waaw loolu dana doy waar de bu fekkee ne jaam yépp nit ñëpp daje nañu kenn solul dara jigéen ñi xool góor ñi góor ñi xool jigéen mu ne ko boobaa kenn du tal loolu mu ne nag dangay seet bis boo xam ne bii tar na tar goo xam ne wóolu nañ ne nit dana def yar mu neen ci te doo ko xool béréb ba ñuy daje fu tàlli ñaay yi lay doon amul fu gëll góose amul jël amul fu yëkkati amul fu suufe amul garab amul ñax amul kenn di làqu suuf su weex tàll tax ba nag tàlli ñaay ñu taxaw noonu ku nekk di xalaat sa mujj ak ci lan nga jëm asamaan si dal ne xatatatatat xotti dagg ca digg ba ci seen kaw bopp malaayika yaa ngi sàppee wër ko mu dal di ruy sotti ku mel ne xaalis boobu nga xam ne tëgg bi togg na ko ba mu def ndox xaw a jaune noonu fa kaanat wardatan kaddihaani lu ko alquran waxee de nit ñi dal di raj raj loo mel na njéeréer yooyu nga xam dëgg leen a waaw ñaq wi taa xej ñu di ko xuus ñuy puusante daje ci béréb boobu da ngay seet béréb boo xam ne asamaani juróom-ñaar ña ca dëkkoon ñëpp suuf si ñu mësoon a dëkk ba a ba fi aadama nekkee ba léegi njaa àll yëpp njanaaw yëpp juri kër yëpp ñëppay daje dajaloo tanceloo ba sës nga xam ne kenn du xam foo jëm ak fooy jaar bu defee suuf si dal ne tell leer goo xam ne kenn xamul fu muy jóge leeruk aras wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha wudiyal kitaab wa ji'a bin nabiyina keroog jant bi dañuy ful tàngaayam xëcc ko ba mu jege bopp yi yur yi di xet ñetti ker doo nga fa am ñenn ñi nee ñu zillul arshi kerug arsh arshu nga xam ne malaayika suñu borom yi ñoo koy seeloo ñaareel bi liwaawul hamdi gi yonent bi sallallahu alayhi moom ak saaba yi ñoo koy kerloo ñetteel bi doomu aadama bu nekk ci sa kerug sarax ngay yendu kérok moy bisu toroxte moy bisu gatch ci ay nit moy bisu kersa kérok bisu tiis la bisu njaqara la di bisu naqar di bisu tangay tangay noy jami ak lakku xol yi ñu taxaw ñom ñep bu xiseen teen ndax yakamti ñu atté leen ñen fukki at nga dégg kuy ñaan sun borom ne nako noppal ci taxaway bi ak tiis wi donte daf koy duggal safara sax mu leer ne bépp ñaq woo xam ne yëngu jëm ci yàlla génnewu ko fii ci àdduna keroog naqar ak tiis ak metit moo koy génne ñaq woo xam ne julli génnewu ko fii koor génnewu ko jihaad génnewu ko aj génnewu ko dimbalib jullit jéem a faj aajoom génnewu ko digle lu baax ak tere lu bon génnewu ko sonn ci sam mbir moroom jaam ngir yàlla génnewu ko bu keroogee ñaq woowu dana génn ngir tiis woowu ñetti téméré at kenn du lek kenn du naan yalla du len xol du wo seen bir kenn du wax ak ñom ngelaw du len upp marwi tar ba ko lé ci bir gemiñ yur di xat ñak wi ak rangoñ du soti ko sallallahu alayhi wasallam neena juroom fukki at yonent bo daw jëm mu bamax la repousser la ne la taluma la de sama bop rek dal lay wax bàkkaar bu ma sona def waye kep ko xamne fi sak muñ yag na ci son ci lo xamne li mbirum yàlla la lu jëm ci yàlla la kérok suñu borom dana la waye falal sallallahu alayhi wasallam neena wala amri huwa ahwanu ala almu'min min salat min salatin maktubat masalan amna jam yo xamne yiñ wax yépp limuy tiss limuy yag limuy metti lépp julli ñaar rakka wala ñent rakka ko gëna tiss ci ñom yàlla na suñu borom boole alquran nee la laa yamlikuuna shafaata illa man jina lahu arrahman wa radiya lahu qawlan bu keroog be muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam mu mag mom nga xamne moy lan moy wax ci suñu borom bu mu ñëw atte jaam ñi ñu seet seeni jëf ñi jëm fi jëm fa ñi jëm fi jëm fa daan wax mbiru yonent bi bu nu weesoo fii tuuti yi yépp lu tiis la kenn mënu ko bañ wax ndax mooy dëgg alquran buñ ko seetee yàlla bi mu neex gaafiri zan bi wa qaabili taw bi dafa ne shadid al iqaabi di tawli ku lay wax lu neex rek te du la wax lu naqari mukk waxu la dëgg kooka laa biirewu la ku lay wax lu la naqar rek te waxu la dara ne lu neex am na itam wàcc na dëgg gi lu neex dafa am lu naqari am lu ci nekk am nañu ko tax a jóg waye man yaakar na nit ki njariñam mu ngi ci mu xamne yalla indi ko fi ngir fo te mbiram yépp lañuy top te daraam réerul suñu borom te ëlëk ci bir dana ko atté ci ak maandoom wala ci yermandem julit bi war na xalaat hisab hisab moy lan manam règlement de compte la ñi seet na jëfëm dañu ko hisab ci lu neewum ak lu barem naqira qitmir moom it bu ma fi nekk di ko firi daañu ko seet bu keroogee ay malaayika daañu wàcc ci goxi asamaan ñoo xam ne nañu bind na la ko yàlla nëbb malaayika yu tal yoo xam ne ndigal suñu borom rek la ñuy déglu lañu dañuy ñëw jël si ñi texee di tooñkat yi ñu ngi jàpp ci seen i càmbarga boole kook seen baaraam yi tànk wëndeel leen di leen diri jëmee ca béréb ba ndax ñooñu mooy ñi nga xam ne mënuñu woon agsi ndax mënuñoo jéggi siraat amuñu lu ñu war ci aw yiw ba àgg ci bërëb ba ñuy àttee noonu la leen malaayka yi jël see malaayka yi ñoom ci seen bopp ñoo gën a tiit ndax ragal yàlla ak mer ma mu keroog ak tiisu bis ba waxtu wu malaayka yooyu di wàcc du bu yonent du bu waliyu du siddiq du saalix lu dul ku leen na jàkk rek ne dal fi suuf këpp këpp sa kanam ndax raglu da nga gis gaañu tiit ba bi ñu ne jàkk si ñooñu dal ne sunu borom a ngi si ñii bu ko defee sunu borom a ngi si ñii ñëw ga mu jëm wax jëmale leen ñooñu daañu tiit ñoom malaayka yi ba duñu xamante lu ñu def bu ko defee daañu sabba sellug yàlla ndax tudd googu ñu leen tudd ñoom tudd ko subhanahu laysa fina walakinahu na nu nañu sellug borom le nekkul ci noonu waaye mu ngi ñëw alquran nee na fa la nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina daanu laaj bu keroogee gaa ñi nga xam ne yónni woon naa yonent yi ci ñoom dana laaj it ñi ma yónni woon muy yonent yooyu le fa yaqulu maza ujibtum yonent yi lay njëkk a laaj nee ñu su la bukki tooñee nga jëlu dóor gaynde bukki dana xam ne xel moom xam na wàllam ca tànku nag wa bu keroogee yonent yooyu seeni xel dana réer seeni fitnaaw lépp lu ñu xamoon dana far dana seeni xol lu ñuy wax laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim xamuñu dara dara dara dara lu dul li nga nu xamal yow rek yaa xam innaka anta allamul xuyubi sidna nuux alayhi salaam xam ngeen ne maanaam daal mooy duwaayu yonent yi moom la suñu borom di njëkk a laaj noohin yow ndax ñi ma la yónni woon la ma la wax woon ci ñoom jotal ngaleen ko mu ne waaw waaw mu daal laaj xeet noohin wa ndax noohin jotal na leen sama yonent bi ñu daal ne déedéet nun kaay kenn mësunoo sunu borom tabaraka wa taala dag ne xullu yonte yàlla isa lu mu ko laajee isa tiit taxaw ay at mënu la tontu bu leen ma dee sunu borom dabaatal ko bu ko ne an taqulta linnaasi ittaxiduni wa ummi ilaahayni min duni illahi qaala subhanaka ma yakun ana qawla ma laysa li bihaqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika innaka anta allamu lghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ubudu allah rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falama tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid duggagul woon ci mbirum tasawuf bi noo ngi woon ci li jullit war di baaxel fu mu toll ndax loolu mën koo yar mën koo jox melaw jullit mën a setal xolam mën tax mu mel ni koy tax a mucc ci ëllëg gannaaw coobareel yàlla ñu ñëwoon léegi balaa suñu boroom rabbul izzati jalla jalaaluhu balaa tàmbali laajte ba keroog leeruk ars dana fekk ci kaw suuf si ba bépp jaam wóolu ne al azizul jabbaar mu ngi ñëw la di laaj jaam ñi bu agsee keroog bu mu nee yaa jibrilu itini bi naari yow jibril indil ma safara sidna jibril dem ci safara ne ko wuyul ki bind wuyul ki moom ak noonu muy deme lépp ni muy raglu kàttan gi muy am ñépp xam ne dañuy wax ne juróom-ñaar fukki junni malaayika koy déndoo ci ay càll la dana tiit tiit moo xam ne moom si boppam fekkoon na ko mu nekk ci mer mere ñi nga xam ne ñoo tooñ yàlla ngir bëgg a sooy boppam mu ajjat ajjat goo xam ne dana dugg ci xolu képp ku teewoon mu agsi ak xasana yi nga xam ne ñoo nekk ca moom di liggéey loo loomaa dama yépp defeenu ngir njàqare muur seeni bët bi ma ne suñu boroom laajee laaj ko mi ngi koy tàmbalee ci yonante yi ndax mott li ngeen li ma leen joxoon maanaam mission bi ma leen joxoon ndax accomplir ngeen ko ci kanamu jaam ñi waajur dana daw doomam ku seen sa mbokk daw ndax xalaat ne ameeloon nga ko adduna ji ngeen bokkoon ne ak joo xam ne dana la ko topp di la ko laaj te doo loo ko feye ku seen sa jabar daw ku seen sa jëkkër daw kenn ku nekk am nga lu la doy ñu tàmbali leen nag di leen laaj li li mbindee fii bari lépp suñu borom dana leen dana leen réglé ci genn wàllu bëccëg te kenn ku ne dana la laaj dana laaj lu néew ak lu tuuti lu nëbbu ak lu feeñ dana laaj te mboolem cër yépp sallallahu taala wa sallam neena bu keroogee jaam bi dana dajeeg boromam mu ne ndax teralu ma la woon waaye ci àdduna mu ne ah ndax def mu la woon ngay ab sang maanaam am nit ñoo féete kaw gën leen mu ne ah ndax joxuma la woon li nga aajo woo lépp ci àdduna nga ne ah kay ndax tàggalu tàggatuma la woon ay mala nga di leen war di leen rey di lekk di leen jëfandikoo ne ah kay mu ne ko waaw ndax jàppoon nga ne tey jii da nga dajeeg man daje bii mu ne déedéet. mu ne kon nag na ma fàtte woon démb dinaa la ko fàttee tey ci sama safara wi fàttalikul bis boobu nga xam ne malaayika daañ jàpp ci sa mbagg mi jiri la ba ci kanam yàlla rabbul izzati azza wa jalla mu dina laaj ndax xéewaluma la woon ngay ndaw am kàttan amug wér ak mucc sa yaram woowu ci lan nga ko rappelé ndax mayu mu la woon dund gu gudd ngay dund di ci lan nga jeexal dund googu ndax wërsëgoo li mu woon alal alal jooju nan nga ko fàggoon ba mu dugg sa loxo ci lan nga ko dépensé ci lan nga ko itam maanaam euh, jëfandikoo ba mu jeex ndax terali mu la woon jox la xam-xam loo jëfe ci xam-xam boobe mu ne seetal keroog sa kersa gi keroog sa gàcce gi seetlu ko muy lim xéwal lim la xewale lepp bu ci nek ngay nangou ne defal na la ko kay te bepp santane bu mu la santoon nga nangou ne sagane won nga ko soo weddee kat se cër ci seen bop ñoy wax ñu kaste sa gemiñ ciir bu ci nek ma wax la mu defoon ba nga di xulok ñom ciir yépp ñoy net li jëf yi bo len ñaan yalla mu ne yéen de li ma doon def lépp seen intérêt taxoon ma di ko def ñu ne ko waaw waaye defuloo ko woon ci sa ndigal borom defuloo ko woon ci dëgg tanun dañ nga wax loo rek yàlla ku mu wax loo nga wax ndax keroog sutura am na sidna bi sallallahu alayhi wasallam ndax am na foofu mu ne waaw waaw da gis mooykat boo xam ne suñu borom dana ko jege ba xam li xawam loxoom teg ci mbaggam ne ko ndax defuloo woon nangam ca suuf kenn du ko dégg lu dul moom moom mu ne ko xaakaay ah, ndax defuloo nangam mu ne axakay mu ne ko dama la suturaale woon ci àdduna ba kenn yëgu ko baal naa la ko fii bu nu weesoo loolu nu dal di jéem a dugg bon kon ci mbirum tasawuf waxoon naa ne tasawuf laaj na tam xiit lan mooy tasawuf waxoon naa ne diina ñetti xaaj la al iman wal islam wal ihsan ngëm gi nga xam ne ci sa xol la nekk nga wax ko ci sa lamiñ nangu nga nangoo tey lislaam di daw ci yow ngay jullit di woor di aj boo dee ñu di la sang di la sang di la suul ci bàmmeeli jullit ñi di jégganal sa bàmmeel ne daañu ko defalub jullit ma waxoon ne loolu rek taxula mucc ndax jëf yooyu yépp mën nga koy jëf te sellal ci biir xol àndu ca te jëf ju sellul ngir yàlla yàlla du ko nangu tasawuf nag ma ne mooy xam-xam bi nga xam ne looloo ko tax a jóg na jaam bi la jëfam xam nañ ne fiq luwaa rek la li yàlla sant jaam ñépp ñu war ko koo jaamoo ak ni ñu war a diggaaleeg seeni mbokki doomu aadama ci àdduna lay atte waaye diggante nit ki ak jaam bi tasawuf a koy wax xol mooy li nga xam ne moom la tasawuf di étudier di ko topp am ay nit ñu ci spécialisé jàng ko ba mën ko lépp ñu sukkandeekoo ci wax yonent gis lépp itam mu dëppoog ni yonent bi dunde woon ak mu daan doxale moo tax ñu ne tasawuf mooy xam-xam bi yewenal biri nit ki bu fiq dee xam-xam bi yewenal ay jëfam ci kaw tasawuf di xam-xam bi yewenal mbiram di yewenal xolam moo koy xamal na muy sellale jaamu yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ne al ihsaanu an taabudallaha ka annaka taraahu fa in taraahu sellal dëgg mooy ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi janloog yàlla ndax wóolu gi nga wóolu ne boo janloo wala moo moom mu ngi janloog yow kon tasawuf mooy xamal doomu aadama itam ay bi ba kanam ba mën koo xeex dindi ko ci boppam lu tego ci kaw alquran ak xaddis la ak rafetu dégg ak topp maanaa yi na mu ware buñ seetee li ñu tuddee al aimmatul arbaa maanaam borom ñeenti ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ahlu sunnati ñi jaam ñi topp ñi jullit ñi topp imam malik nee na wa man tafaqaha wa lam fakat faqad tafassaqa wa man tasawafa bila tafaquhin faqad tazandaqa képp koo xam ne fiqu nga xam nga xam-xamu fiq maanaam xam nga luwaa jëfe ko te toppatoo woo tasawuf faasiq nga maanaam saay-saay nga képp koo xam ne nag def nga safaanug loolu zindiq nga mooy kuy feeñal njullit ci kaw tey nëbb kéefar ca biir tasafu ne tasawuf moo ne xamal kéemtaani xol xol buñ ko waxee fii dañ cee jublu rek du cër bi nga xam ne dafa toll ne loxo boo ngëpp cat li xaw lunk tuuti di lang ci dënnu doomu aadama lunk lunk bi jublu wetu càmmooñam deret ji di ci daw mu am ñeenti boqatal ñeenti ngës muy bés deret ji di ko delloo waaye li mu doon sirru la secret bu nekk ci biir doomu aadama boo xam ne moom la wuuteeg mala yi ba tax ñu togg ko jëf secret boobu moo tax mu mën a xam yàlla ndax nit suñu borom daf ca boole lépp lu mu bind mu sàkk ca boole malaayika lu basit la maanaam lu simple la ndax leeru yàlla dong la bu dara jaxasowul moo tax du lekk du naan aajowul dara xamul dara du topp boromam bàyyi ma am na yaram xam na bànneex dana mer amna yaram xamna banex dana mer dana yëg metit ak naqar waye amul xel kam togu ko jëf nit nak am la malaka am boole ci li bayima am motax ñu togu ko jëf loolu motax alquran bi ñëwee ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha linsanu innahu kana waluman jahulan ko lëral diine ko sun borom ne jeeyi daf ko won montagne ñu ragal ko daw mu wan ko asamaan yi ñu ragal mu won ko suuf ñu ragal doomu aadama ne ko indi àttan naa ko suñu borom teg ci ne doomu aadama day ku mën a tooñ boppam la te ku réere boromam la nangu googu mu nangu secret bu mag yan bu mag boobu nga xam ne naqari naa àggale fooñ fooñ ko war a jëmee bu xamoon dara du ko nangu li ko waral doomu aadama yàlla daf ko jox xel mu dem nag sukkandikoo xel mi defe ne xel mën naa àtte lépp defe ne xel dara ump ko te yàlla bi mu sàkkee doomu aadama sàkkal ko xel xel mi daf ko mën a jubbanti ci àdduna di ko wan lu koy lor ak lu koy jariñ ak lépp lu muy lu nam ko mën a gise ci xel mi ak lépp lu mu woo li nga xam ne nag xel mi mënu koo xam moo tax mu yónni bi yonent jox ko beneen sens bu nit ñi amul kooka xam loola mën a ñëw misaal leen ko loolu tax sidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ne inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli diine dañ koo tabax ci kaw toxal yonent bi nee na yàlla nee na nga dégg loola gëm ko jëfe ko waaye du caagi ne da ngay seet sa xel mu jub nga ne ñooy dëgg dina nanguwul loolu nit nag bi mu dee ruux ak jëmm jëmm dëkk ci suuf ñu bindee ko ci suuf si roo dëkk malakoot di principe bu xam-xam di leerug yàlla bi ñu dajee roo dal di tëj jëmm dal koy tëj kaso ba mu fàtte fa dëkkoon fàtte la mu xamoon daañu wax ne bi suñu borom bindee roo yi kese te bindul jëmm bi mu ne alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom gannaaw ruu moom dafa xam boroom ndax ci leeru yàlla lañ ko bindee ko bindee ci leer googu nandal ko ci li ñu tuddee an nuurul mukarram ñeenti yoon muumin ñun nandal ko ci fukki yoon ba suñu borom waxee loolu ndax duma seen borom dafa dal di tontu ne ahakay balee ruux yépp ne balee ruuxu sallallahu taala alayhi wa sallam moo jikka tontu bi mu tontoo ruuxu yonent yépp tegu ci ruuxu lawliyaahu yépp tegu ci ak siddiqoona yi bi mu ko defee ruuxu muumin gëm way gëm ñépp nangu ne ahakay ruux yéefari suñu borom forcé leen ñu nangu bi nga xamee ne suñu borom nag daf leen a war a passé ci épreuve daf leen a war a seet ba xam li ñu wax dëgg si ñoomam déet mu indi leen ci àdduna léegi xamal leen bànneex ñu am intérêt di am naqar di am mer seen i intérêt di féeroog seen i intérêt yi morom suñu borom digal leen tere leen te digal li mu leen digal pour ñu mën a def ndigalam li mu leen tere ñu mën ko moyandiku laaj ñu muñ laaj ñu liggéey tax nit dafa ñëw fii pour jàng dafa ñëw fii indi malaan mu set wecc daf ko war a delloo mu ba mu koy delloo mu mel na meloon ba mu koy jot mu di ruuxam googu nga xam ne taas bu ci am daañu ko fóot ëllëg maanaam dana ja dana passé li ñu tuddee par une voie purgatoire nga tuddee ko safara wala loo ko mën a tuddee ëllëg si biir ndax balay mën a bànneexu ci leeri boromam li ñu tuddee àjjana faw mu set ba benn gàkk du ci nekk benn taas du ci nekk waaye bi nga xamee ne ruux ñëw na fii bi mu duggee ci yaram dafa daal di feebar dafa daal di tawat aduna bépp kon mel ne hôpital hôpital bi yonent yi bi ñëwee ñoom ñooy médecin yi nga xam ne ñooy war a faj jaam ñi bi nga xamee ne ñëw nañ di faj jaam ñi yàlla xamal na leen bépp tawat na mu mën a demee la koy faj ak la koy wéral bi mu leen ko xamalee jaam ñi amatuñu dara lu ñu def lu dul topp li ñoo ñuy wax bu fekkente nag dañoo am bëjjër lépp ne nun day sàllaaw garab gi ñu jox daanu ko topp ba xam ban xob ak ban reen lañ fi dajale mooñ ko ak me xob bu ci nekk ak meen bu ci nekk nam daje nam demee moroomam rapport am bala ma koy jëfandikoo loolu lay xam loo mooy balay xam lu tax muy julli dana seet lan la julli wala jëriñ kon maladie am dana ko rey te du ca àgg li mu war a def kay mooy topp rek li nga xam ne moom la ko médecin bi digal léegi nag ahlu tasawuf dañoo jàng ajaibul qalbi yooyu li nga xam ne mooy principe bu tasawuf moo di bi ñu bàyyee xel ci ne nit ki ñaari ansur yooyu la ñaari éléments yi mooy roo ak jëmm te roo ak jëmm antagoniste maanaam dañoo bañante njëriñal kii mooy loru kii bànneexu kii mooy naqariw kii tiisu kii mooy jàmm kii bu fekkee ne nit ki bi mu nekkee ci àdduna dafa dimbali roo jëmm ci jaari bakkan di xeex bakkanam di xeex bànneexam di xeex seytaane di xeex lépp loo xam ne daf koy lor ruuxam day gën di set di gën waaye mënu la àggale kenn ci yàlla ndax xamul yoon wi mësu fee jaar asaalikul majjub mooy ki nga xam ne jàng na nii jàngkat yëpp jàngee am xam-xam soobu yoonu tasawuf ba am fatxu dem ba àgg ci yàlla kooku mën na xettali daañu nangu ñaanam mën na àggale nit ci yàlla waaye al majdubu salik nag mooy doon sëriñu sëriñ si mooy ki nga xam ne daf ko judduwaale ba noppi jaar ci yoon wa mooy ki ñu waxoon ne mooy géej gi xam ngeen ne waxoon nañu ne <coughs> xeeti euh, awliya yi bari nañu seeni martaba moo gën a bari ak seeni xeet ndax duñ ci dokkut bul xaw nga xam ni moo féete koo ñëpp ku dul borom maqaama xurba ñaar ñu topp ci moom kenn ci topp ci moom mooy alwakil ñaar ñi ci toppaat al imamaani lañ leen di tuddee ñi ci topp ñeent lañu al lawtaat lañ leen di wax ñi ci topp juróom-ñaar lañu ay abdal lañ leen di wax waaye am na rajabiyuuna am na kurubiyuuna am na nuqaba am na nujaba am na xawaariyuuna kenn mënu koo takk lu dul yàlla rek xam nañu toll dañoo bare léegi ñoom ñëpp bu ñu bokkee àgg ci yàlla itam may wute na ñaari nit ku ci nekk mën naa amee sa ndab ñëw ci duykat bi ci teen bi mu duyal kenn ku ci nekk ba sa fees te kenn ci dana mën a may moroom mi ndox fukki yoon ndax daf ko ëpp paan wala daf ko ëpp ndab ci kaw def yooyu la may yi wuutee buñ ci demee daanu fàttaliku ne ci jamono yonent bi sallallahu taala wa sallama am na ku ñu daan wax jëmm ji nga xam ne moom la ñu tuddee woon waysul xarani ci jamono yonente bi la nekkoon waaye mosul woon a ñëw kenn boolewu ko ci saaba yi ndax di ko fekk ci yonente bi ndax toppatoo yaayam ji màggat moo te muy ci moom moo tax ñëwul woon waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ne inni la ajidu nafata rahmani min janibil yaman mel ne ku ne daal eh, xetu yàllaa ngi may xeeñ ci wet gii te fekk booba waa jooju fa nekkoon nee woon na képp ku ko gis ci yéen na ko ñaan loo yàlla ku mu jéggalul yàlla dana la jéggal lu mu ñaan suñu borom dana ko def sidna omar ak sidna lin ñoko gis lim ko gisee bi sako ci mom ñaan mu ne leen yeen ku jogi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay ñaan lo kenn ñe ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won ko la gis na la ñaan lo ndax lo ñaan yalla dina ko nangu mu ne na muhammad ibn abdullah yeen di gis leen ci mom ludul tak ndoram ñu ne ko ha mu ne waaw ñu ne ko ba sidna abubakar tax mu ne ba sidna abubakar tax gis ludul tak ndoram ñu ne ko waaw yow nak ndax xam nga al haqatu muhammad ya deug deug mu ne man da ñaanon na sama borom dama muril ci raay yi ma ko laq mu dima muril dima muril bam dess juroom ñaar fukki jinni ci raay rek waye ben bu ma ci jégué won ni karaw di sey ci safara lay sey gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ummati kal matari laa yadra awaluhu xayrun am aaxiruhu sama xeet yi kat ñu ngi demee ne nawet xamuñu njëlbeen gee gën xamuñu mujj gee gën kon nag mënu ne ñu jëkkoon ñu rek ñoo gën ñu mujj ñu mënu ñu ne leen ku ñu wax Cheikh Abdul Wahab Sha'rani radiyallahu anhu nee na suñu borom xamal na ko ci qadim mu jàlloog ci lawxul mahfuz képp ku aju ci moom mu xamal suñu borom xamal na ko sa turu ndey ak sa turu baay xamal ko sa place ci àjjana kon nga xam ne suñu borom maye na ku ñu abu yazid al bustani nee na safara wa ci alaxira bu ko gisoon moom dana tiit ba fay safara dana tiit ba fay bu ko gisoon kon ngeen xam ne suñu borom maye na awliya yi am nañ juróom benn téeméeri xam-xam yoo xam ne ulama yi xamuñu sax tur ya ku ñu sufyaanu sawri bi mu faatoo ba amub diir mbokkam mi mu gënoon a jegeel bi mu géntee gis ko dafa ne ko naka nga def ak suñu borom mu ne ko nazartu ila rabbi iyaanan wa qaala li hani an ridayi an ka yabna saidi لقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بأبرة مستاق وقلب أميدي فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإني أنك خير بعيد منكم من دي جاكار لنا سنبرم تبارك وتعالى كمير أورا كدور أي أنن ما نمت جاكار لنا من ما ndokkel naa la maa ngi lay ndokkel man maa ngi lay félicité gërëm naa la lool yow ibnu saïd daa nga taxaw taxawaay bu yàgg guddi àndoog sa ak xol bu wow kon ndax topp ma ak nam ma jëm si ci man kon léegi njën li yaa ngi ni tànnal lu la ci neex nga dëkk ci te nga dima ziyaare rek du ma la ko di mukk nag suñu borom tabaraka wa taala moo ko wax loolu le kon nag li ñu tuddee al juudul ilaahi buñ bokkee ak itam tabet yàlla ji jaam ñi yem leewuñ ci man kaana lillahi kaana allahu lahu suñu borom nee koo xam ne ci dox nga jëm si ci man ma waaxu jëm si ci yow képp koo xam ne ci waaxu nga jëm si ci danaa cal jëm si ci yow ku cal jëm ci yow ma daw jëm si ci yow kon doomu aadama fàggu dong la man li ci des yàllaa ko amee daal di gis ne kon nag loolu ci loolu ñu daal di duggee ci Cheikh Bamba nag gannaaw dañu ñëwoon mawdu bi moo di tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu waykat ba nee na ak Cheikh Ahmadou ni'matun awlaaha haadi alxalaa'iqa kullaha mii day xéewal la goo xam ne suñu borom daf koo xéewale mboolem bindee fii noonu la saayir ba nga xam ne naaru gànnaar la te borom xam-xam nga moom la wax. am na phrase bu ma joxoon sama communication boobu woon ci semaine culturelle bi waaye nag dama ko bindoon tubaab kon danaa ko lire ndax introduction la bu juboo ak li may bëgg a wax. aajowoo bi nga xam ne jamono ji ñu toll noonu lañ aajowoo ku mel ne moom di ko roy mais na waxal ndax moom ko roy adduna ak àllaaxira ngay boole am adduna ji sax. bëggul ku ko neenal wa qallil ruqaada faariqil kasal wa qallil raaxata qassir lamal nee na wa qallil na nga néewal ruqaada say nelaw faariq na nga teqli ko al kasala tayeel wa qallil na nga néewal raaxata nooflaay qassir na nga gàttal lamat say mébét na nga gàttal say mébét mooy sunu compatriote boo xam ne yëkkati na sunu personnalité l'islam sunu personnalité historique itam باينا في اي جيخيت اي جيستي فيو خمنا بابا السادة تخو ان شاء الله دي جنة جمكو جانتا ننو ما نم انكوراجي ننو بمتي يكتنا سنو قيمة تاريخية يكتنا وقو نيت كنيول تبا مجافة بغا خميني خل خلات الله لولو أنا لا يزول لك مدى الزمان أن أخذه كوني من السوداني ثم تيري دمي دلي مدى مسالك الجنان بل نرك تيني كنيول لك دوما فتيرم بديكو جانغ ديكي جرينو الاكرم العباد عند الله اكثرهم تقوا بالاستباء نغا خامني كا گنا جيجي يالا كا گنا تيد فا يالا موي كي گنا رغال يالا ريك دوكو نيل دوكو ويخ دوكو نين نينا فليس يوجب سواد الجسم سفاهه الفتى وسوء الفهم يرم ونيو ريك ورل الخلم غات ورل الدب بو نياو نينا ولا تخصص فضل رب قد على ذي تقدم فقط فتجهلا بل جاغلي تام نغنيلال يالا مو ماغني ني جيتو ون ريك وتي ني مجي بوكو ديفه دا ngay rer ndax fa tallu qad yabdu amama alwabli wal fadl wabli la litalli talli taw bu néew bu wayx bu ñu tuddee samb suy mën na jitu waame te waame moo amee ngëneel la kon du ko jitu rek ya gën may la sa xel ci lolu rek mu nek héros national bo xamné ci buñu génne won diine ji tek fé ci biir ak bitti ta lolu mu nekké daf ko démontrer itam nari ganari nit ku ñuul nit ki xeeb nit ku weex limuy muy xeeb nit ku ñuul nangul nañ ko kenn ci ahlu tasawuf ci waa gànnaar bu ñu tuddee bu ñu tuddee sabatul rijaal maanaam juróom-ñaari góor yi nga xam ne dañ ne kuy tudd seen tur subaak ngoon da nga mucc ci bépp musiba dafa nga mucc ci safara ki nga xam ne moo yëkkati turu sëñ Tuubaa boole ko seen ci la bokk du wolof du sénégalais naar gànnaar la kon nga xam ne ñooñu xam nañ ko mooy tayfuuru maaruf uways wal jili abu yaza wal xasali staamili zikrahum sabahan masaan tafsiru min al masaajid wa min jahannami هنا الثامن الخطب الخديم أحمد من مثله في الغرب ليس يوجد في الخطب الخوص بن حمنا كو خمد را خمد لنك نخطب الخوص مولي سيخت عدو أبيه رضي الله عنه بي سنة توبا جيجي في جيجي نوكيال نبيسلام نوكيال سنة توبا الإسلام توبا كم لنوكيال نخ تمران كم تمران كوان أك تيس نمنا كوان نقر نيجا خمنا نون لكو خمنا جيجي جيجي خمنا دفا دم وچ دوما مخيف مر rafle tumuranke bi yaayam ñëwee ni ñu ko war a ndokkeele noonu la lislaam mel non la dëgg ci dik ji señtu ba delu fi jóge ci dëgg mu ne ko maadinuhu ajlatu minhu an-nasara fa asbaxat fi tilka al-buhur mubara mu ne mbellam yoy mu nekkon mu di miin yi lu yi nañ ko ca mu mujj di wuru fu amul ben ndend amul morom jëgé ca géej yoy gi ka wuyé mu ne هنيئا للدين الغريب الذي قد يأتيه سرورا منكم وافتخارا mu ne maa ngi ndokkeel diine ji nga xam ne dafa tumuranke woon nga xam ne léegi bi nga ñibbisee mujj na di di puukaree woon di sigare ngir bëgg ci sa ñëw goo ñëw mu ne fa yaa ajaban baabul mataabi mufattaxun li kulli muridin raama minhu jiwaara parce que dëgg mat na juróom-ñaari way munaasa bi bii tax na yan way teewluuma ko waaye loolu doy na ci ñu daal di xam ne nit la woon koo xam ne képp ku ko xam ak ngay national ci boo mën a amee da nga yéemu ci moom kat da nga def li ñuy wax i'tiraaf maanaam da nga reconnaître supériorité daal da nga reconnaître supériorité daal ndax moom bu fekkoon ne dana xool ci zahiram rek dana doy sëkk dana doy sëkk ñu puukare woo ko ñun waa Sénégal ci xeet yëpp ci jamono bu nekk itam ndax xam nañ ne ni nga xam ne américains yi bañ ne dañuy seet l'homme le plus influent du monde de tous les temps ci ëpp ci gën a influer ci ci doomu aadama yi ci nit ñëpp ñu dem ba ñoom seen bopp ak li ñu dul jullit ñëpp ñu dem ban reconnaître ne Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ndax seet nañ ko ci critère bu nekk ku nekk leer na la ne bu ñu doon seet l'homme le plus influent ci Sénégal it amul ci ci sàkk ñëpp daañu nangu ne moom la nag roy ko war nañu ci fayda ci am bopp ci takku ci njub ci am fit ci mën a muñ ci doylu ci wóolu yàlla ci ngor ci bañ a ragal kenn ku dul yàlla bañ a yaakaar kenn ku dul yàlla ndax biñ ko ne irkan dafa ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatini tahus jawaisa tuxni kulla ma ini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu atlubu xayra al ilmi wa diini walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yundini bu ñu ndax li mu doon wax ne wàllu yi ñett lañu teen ak dex ak géej ñuy wax daal istidaad bu mat buñ seetee ndawam daanu seet ne daan gis ne lu kéemaane kéemaane la mi nenul baaxul xadim boobu sëñ Basiru Mbàkke bind wax na ci ne ba mu nekkee xale bu tuuti buñ ko masaan boot buñ masee suubu ak moom mbedd moo xam ne benn ña ngi fay fa wala ña fay def lu neexul yàlla dootu ànd ak sagoom ba ba ñu koy génne mbedd moomale nee na bu masaan guddi daawul nangoo te dëgg waajuram ci benn lal nee na béréb bi mu daan gën a taxawoo mooy fa ñuy jullee jullikaay ba dafa daan nekk di fa tëdd ak di fa toog ba ñu sikki sàkk ci ndax ci nit la nit njaay la wala déet wala leneen la muy nit ku xar baax li ñuy wax xaadisul wala xaani xam ne ahlu tasawuf xam nañ ko ñu ko gënoon a xamal mooy Cheikh Ahmadul Badawi nga xam ne mooy ni ma misaale woon ne dafa mel ne secret bu diis lañ leen di yem ñu am namm gu ñu namm béréb boo xam ne nit ñi xamuñu ko namm goo xam ne dana leen tàggale seen sago dana leen mel ne lu leen tàggale seen xel Cheikh Ahmadul Badawi daf daan yéeg ci kaw terrasse taxaw ne jàkk benn benn tomb rek ci asamaan si lu mat weer ak lu topp. du xef du randu du wàcc du lekk du naan ba mujj nagu ba tam ji dafa xonq te yi mel ne xalu safara te Ahmadou Bamba ni mu ko dikkee woon ci wetu ndawam la dafa meloon ne ku nitoo di ku dañ daan wax sax booba dofu Mor Anta Sali bi bas naa gis seen soxna soo xam ne moom ci boppam booba xale la moom mag la trop du nu lépp téeméer at nee na ko ñaari yoon nee na ba muy gone nee na fekkoon na jamono joo xam ne nee na booba moom yi woon nañu naan dofu Mor Anta Sali bi nee na ñoom fu ñu ko masaan sin sax dañuy daw ndax defe ne day dóore nee na benn bis ba ma ko ñemee nee na booba danoon demoon ci àll bi naka nu dem ba mu yàgg nu toog di waxtaan di noppalu muy ñëw ndeke garab gu ndaw dox na suñu diggante moom gisuñu ko bi mu ne tëccët suñu kaw nu tëb ne dof baa ngoog daw leen nee man ma tëb daanu feqatalu daanu mu romb ma xooluma sax nee na booba lañ xam ne du dóore xam ne kon booba loolu mu yenu woon moo ne woon ci moom te gisul ku ko yenni xamul na muy def ba tàggoog moom te warul a tàggoog moom itam dafa war a gën a mën a téeñu rek ngir yenu yen ba waxoon naa ne ci ahmadul badawi jaaroon na ci loolu ba mu ciy jaar mag la woon góor gi nga xam ne ci ndawam la toll woon foofa mën nañ ko boole ci kéemaan yi bi mu sooboo itam ak sooboom ci tasawuf lu kéemaane la wax nañ ni min haajul aabidina la toll woon fekk na xuuf naa ci conférence bi lu bare bare bari sax ndax gannaaw xam naa ne itteel na leen moom tasawufu sëñ Tuubaa tax na ma dagg lu bari ci tasawuf ne kon danaa leen mën wan ay béréb yoo xam ne ay jëf yu mu jëf la ko waral mu ngi jóge ci min haajul aabidina boobu ndax moom ci boppam bi mu woyee xamsatu rijaal du ne ko ci mu di koo xam ne suubam suubug dogu la ak dogoom lu ñu faralu la gis la os la itam ni mu ko defee ku soxar la ci bakkanam ndax bëggul lu dul yàlla mu di nit koo xam ne du meenal dara ci jamono du perdre temps moom directement rek jëm ci bit bi xut boo woon na boppam ca ba muy xaleel bu ndaw yaa saahikun istiralin kulla ahyaani bi taatillahi la tarkan li isyaani boo ko jàngee da nga daal di xam ne ñuy wax ci ku dogale te am na fu mu jëm te xam ne fi mu jógee xam na fa mu jëm ci daan jàngale ay taalibi baayam di jàngal ay rakkam di taalif itam liggéey na foofu itam liggéey boo xam ne bu dul woon di mbirum tasawuf la mën nañ fa yàgg waaye ki ci jàngale boobu ba keroog bi ko suñu bi di digal ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihum bi darsi na nga yar say àndandoo maanaam ñi la topp say taalibi ci himma himma mu doon xëy na daanu ko waxtaanee mbirum tasawuf la itte lañ ko mën a firee waaye bu leen yare jàngal rek keroog bis boobee te fekk waajuram dawlu na dalal taxaw wax baatam bu dëgg boobee wala ne képp koo xam ne daf ma nangoo ànd ak man suubu ci li ma suubu topp ma ngir yàlla na toog waaye képp koo xam ne ngir wut xam ak jàng moo la taxoon a ñëw ben man nga delu sa sa dekk fa nga dëkkoon wala nga wuti fenen fo jange man ma ngi ci leneen bis naka tey bis boobu daal mooy bisu dogo ci soobu nag ba yan boobee mu yan woon mu tàmb di yëg ak woyafam ndànk ndànk ca jëfin wa mu jëfe foo ko fekk booba mu ngi yor min hajul abidina ñi des ànd ak moom mooy saadiqoone yi mu di koo xam ne dafa bàyyi aada yépp deful aada lu dul loo xam ne lii ngërëmal yàlla nga ca di lislaam amul loo xam ne li dafa fekk daf caa fekk nit ñi ñii di ko jëfandikoo mu jaar te di ko jëfandikoo nit ñi jëfe dafay koo xam ne ba mu jëfee rek li ko itteel du dara lu dul ngërëmal yàlla rek mu wut ngërëmal yàlla ci bépp jéego bu mu jéggi jëpp jëf ji mu jëf bépp baat bu mu wax mu bokkoon ci ñi gën a tasawufam boobu jaxasoowul ak falsafa maanaam philosophie ku mel ni ibnu sabayin jaxasoowul itam ak loo xam ne lii dafay wane ne doomu aadama bi dafa bëgg adduna maanaam siyaasa woo mat ay mit ci nekk seen kanam moo ca ànd ni ci ñenn defe wax Cheikh ak Cheikh Saadu Abi radiyallahu anhu jooju mu wax di ndokkeel diine ji dafa dëpp xadis bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam ñu dafa newoon tuuba liman balaxa al mi'ata rabi'ata ba'da al alfi texe ñeel na ku fekke siyeekalu fukkeelu ñeenteelu gàddaay gi foofa siyeekalu ñeenteel boobu sëñ Tuubaa dajeek moom ba tax na am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi xalaat nañu ne mujaddid la ndax mujaddid mooy lan dañu waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na suñu borom dana yebal ci tàmbali bépp siyeekal ci lislaam waa joo xam ne dana beesal dana renouveler dana yëkkati mbirum diine ji daje nañ ci ne Omar ibnu Abdul Aziz téeméeru ñaareel ba maanaam siècle ñaareel ba mooy mujaddid ba ñu ne limaamu Shafii mooy borom ñaare ñetteelu téeméer ba mooy ka ko beesal di ci topp Seydina limaamul Buxaari di Abubakar al Baqlaani ñoom ñëpp daanaka daje nañ ci ne téeméeru juróomeel bi limaamul Xasaali la li nga xam ne mooy sarti yi bu ñu ko seetee yëpp daje na ci Cheikh Ahmadou Bamba kon ba ñu mën kon ne man la ba loolu amee gannaaw nit la koo xam ne suñ boroom daf koo wuyee destiné bu kawe war na koo yen yen bu rëy yéen bi gën a diis ci yéen yi la ko waaye yéen ndax sàkku loo xam ne suñ boroom xamal na ko ne ko julli mënu koo maye woor mënu koo maye sikar mënu koo maye xalwa mënu koo maye li koy maye moo di da def sa bopp ne ku bokkoon ca saaba ya do roy kenn do nawlo kenn ku dul ñooñu te itam buñ la nattu nattu wali nattu yonent lañ lay nattu booba la sun borom dal di sant seytaane mu dal di def ci xoli nasaraan yi wóoloo di ko ak ragal ko dana jihar ba tax ñu dal ci kom daanu ci delu ci legi inshallah bu ngeen sété ci saw shakoor da ngeen gis tumuranke islam tumuranke won ci jamono yoyu muy mu ci gisaw sakkur bu wax na beneen islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci fawu jant fépp mel ne làmbaay kenn amatul qasdu li wacci laahi kaa ngi foore far di jaanillaahi wax na beneen sëriñ fi ànd ak ceddo yi ñii di waañaan ñii bandaan melal daal ni nga xam ne noonu la jamono bi meloon bi muy ñëw nga xam ne aajowoo nañ kon mujaddid maanaam aajowoo nañu rénovateur loolu bu ñu ko seetee ak matam ak màggam du lu leer ci zahir baatin ñu ci moom ngëm goo xam ne néew na ku ko am dafa mel ne gëmu malaayika ragalul dara xamemul dara itam ba saar bi na ko wa sabruka faaqa sabra naasi xatta sa mawta bihi ilaa alal maqaami sa muñ ji kawe na muñu doomu aadama yi ba nga àgg ci maqaam ba gën a kawe ngir muñ ndax am na walla ñàkk na xamul ku ko xabale ku koy neexal li ngërëmal yàlla dong nekk la jublu la mu nekkul dong la wan gannaaw bu ko adduna wanee kanam ak bu ko wanee gannaaw la yemale nee na aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zala anni qablu wa ba'dahu anni adbarat walam amin laha li kawniha daara walam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa manni adduna jublu woon na ma bu njëkk ma jaay ko suñu borom musal ma ci jéng bi adduna jéng képp koo xam ne ci jóg nga ngir jaamu yàlla yéexal gi muy yéexal sab dox gannaaw loolu adduna wanati ma gannaaw ndax def ne danaa walbatiku jëm si ci moom ma bañ a walbatiku ndax xam ne këru lëndëm la mu dellu si waat walbatiku jëm jubloo si ci man man ma jublu yàlla rek yàlla daal may may nag xéewal gu def ba faw te dootu si jóg suñu borom daal dogal nag ci kaw loolu mu ñaan nee ñu li taxoon mu ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini dafa masoon a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ba mu àggalee mu laaj suñu borom mu wan ko kumpa mu wan ko yool yi jaamu yàlla yi mu gis yool yi ci gën a xemme mu di yoolu yoolu ahlu badrin mooy ña àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xare mu ne ma waaye lii suñu borom nan la nit mën a def pour am ko mu ne ko lii de amul genn jaamu yàlla gu la ko mën a may ndax wéy na jeex na ba noppi tëj nañ bunt ba ba nga xamee ne naagu na ci ba yaakaar ne dootu ko am suñu borom ne ko dana ko jaay de waaye waaye biñ la waxee njëgam nag wan nga ko gannaaw mu ne ndax mu laajte ndax moom sañ naa xam njëg gi ñu wax dañ ko ko xamalee mu daal di nangu ne jënd na ko bisu keroog la tàggoog ki nelaw keroog la tàggoog nooflaay keroog it la daal di yëkk ci itam yëkk ko ci ëkk lu tolloog suuratu laawaani mi ataani wa xam sunu wa samaanoona ñaari téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom nattu nañ ko ko musul ne ah musula lii lu ko waral xelam musula dem ci lu ko musal walla dara ndax suñu borom xamaloon na ko ne ko bis booy dox ba geesu sa gannaaw lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo tëddee ci lal nelaw lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo ci mbooloo di waxtaan adduna lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo xamee ne métit dal na la ba nga ne uh lu ma la nangu bis boo delloo gannaaw ci li nga doon def wala nga wàññi dara ngir tawat wala ngir sonn wala wala xiif wala nga mar wala nga jàmbat dara lu ma la nangu xelam dal di dem ci Yahya ibnu Zakariya li nga xam ne yonent bu ñu yónni la woon jamono yi nga xamee ne yëfar yi topp nañ ko mu génn di dem Iblis dal di soppali ko jëmm ne ko yow de waaye sa bopp yow yonent nga lo sant rek loo digal la top sa ndigal te nga ne garab gi xaral mu xar nga dugg ci rek nga ne ko neel kep mu kep bu ko defee duñ la gis mo gëna noppale mu ne wax nga dëgg de way xamul ne iblis la mu ne garab gi xaral way garab bu reuy garab gi xar mu dugg ci garab da mu ne garab gi neel kep garab gi ne kep fekk bi muy dugg nag seetaane jàpp na ci laf mbum mi wacc ba garab gi ne kep mo ci laf mbum mi ne làcc bi gañi daw bu ko wees mu ne eh ñëw leen mu ngi fi laf mbum ma ngi ni ñu dal ci kër ga dal di fat si ba dale ko ci bop garab ga diko si diko si ba xar bop bi bi ñu suyee bay xar xol bi muy bëgg a wonk suñu borom yi bal jibril ne ko boo demee ne ko bu ne us rek ma far turam ci diiwaanu yonante yi sëñ Tuuba xolam dal di dem ci Yaxya ibnu Zakariya moomu mu dal di muñ lépp loo xam ne suñu borom teg na ko ko suñu borom dal di sotti mboolem luy balaay adduna yëpp ci kawam ak i tiis ak métit loolu moo diggal xadis bi sallallahu taala wa sallam ne ashaddu naasi balaa an al anbiyaaw fa lam suma lamsalu fa lamsal ki gën a tar balaa ki gën a ñi gën a tar musiba ci adduna mooy yonante yi seen gannaaw ña ca topp maanaam képp ku gën a xaj yàlla ci yàlla rek moo gën a tiis lu lu mu dajal ci àdduna noonu ko seytaane euh, ruuxalee ak nasaraan yi génne bi amatuñu jàmm génne bi ñu leen di génne dóor yi ñu leen di dóor dàq yi ñu leen di dàq tëj gi amuñu jàmm muccuñu lu nañu wan leen ko lépp yemul ci muñ rek yemul ci muñ sant rek daf ca bépp ngir xam ne yàlla fàttiwu ko ndax mi ngi koy tegi tiis Musaa Ka nee na te mooma xat lañ génne seex ya Tuuba di aaye jël ya di aaye tool ba taalub sëriñ ba dal di fay fa Tuuba ak Mbàkke ciy teye ko wuuteeg booba mu nekk jëmm joo xam ne ci naqar ak ci tiis ak ci métit rek lay yéegi ci yàlla mu dal di xam loolu dal di nangu yoonu géej googu ngir na ma liggéeyal yonent bi daañu wax ne moom ci boppam nettali na ne bu demul woon ci géej gi dana ala ko alake ñu ne ko loolu ko waral mu ne boobu dama mel ne xiif boo xam ne dafa am ci réew kenn amul pepp dugub boo lekk am nit koo xam dafa am ay sàqam mooy gërëñe yi ub ko ku ko seen defe ne fees na dell dugub adduna bépp riiroo ak seeni i saaku ak seeni i paan ak seeni i ndab ñëw tëdd ca taat ba ne waxtu ubbee sàqam yi rek daanu am lu ñu lekk fekk dara nekku ca nee na nag te mënumaa liggéey ba feesal ko dugub ndax doomu aadama yi yàlla xamal na leen sama digganteeg moom ba noppi ñu dama def dër dër dër dër léeg-léeg mu jekki-jekki dal di sàcc génn réer nekku ci lu dul jaamu yàlla génnam yooyu bu ñu ko doon waxtaane dana yaatu waaye gannaaw tasawuf bi rek lañ bëgg a wax am na yu bari yoo xam ne dañ koy dagg xëy na yeneen i conférence ko mën a génne waaye ku xiroon ci jaamu boromam la te amul woon yaatut na mu ko defee loolu moo waral ba suñu borom dogalee yoonu géej mu xam ne ci la war a liggéeyee mu daal di am mbépp daañu nettali ne am na bis boo xam ne jamono yooyu xaadi ji atteel buur bi ñu wax Lat Joor te nga xam ne dañoo daganaloon jaam yi nga xam ne ñoom la ceddo yu amee woon te xam ngeen ne jaam yooyu du woon lu dul ñu ñu ëpp doole rek jàpp leen l'islam reconnaître leen kon comme jaam si nag xawoon ragal Lat Joor wala wut lu ko neex ba daganal ko ba ca kàddoom ji bee wane ne jaam yooyu nga xam ne fasa ko daw day takkul sëy deful asaka ajiwul màkka ndax du alal ju lew keroog bi nga xamee ne Lat Joor woote na ngir boole ko benn jataay mokkaal ji ji wax loolu le te muy koo xam ne liggéeyal boromam ak ndigalal boromam moo ko gën a far lépp ba mu déggee woote ba itam mënu la sàggane liggéeyal boromam dog yi nga xam ne daf ko daan defal yàlla dara mun la tax mu bàyyi ko te booba ndaw la mu nekk ci ba tax mu xaw a tardé mu dikkee ba jig ni ñëw ak siwul lu dul dal di jàpp julli ñaari rakka mu tàllal ay loxoom di ñaan koo xam ne du ma tudd turam nee na jóge ci mbooloo ma dikk ba ak si ne ko yow de waay sa teggin yi des na ndax ndaxte kilifa yu toll nii wala booba léegi ñu taxaw di la nekk defuloo dara lu dul toog ba mu neex la nga ñëw dikk ba jublu ne capp di jàpp ñu defe ne boo àggalee ñëw ngay julli dellu taal sa loxo yi teew sax li ngay def man seytaane la ñuy niru ndax moom xamunum ban waxtu ngay julli tisbaar yi ne te takkusaan jotagul ne ko wong raj nee na bis boobee ba ma diw sàngam moom wongee bi nga xamee ne Conakry tubaab yi xamle nañu ne noppi nañu ci moom ba war naa dellu mën naa dellu si am na ko ko jël ci mu ne ko keroog bis boobee ma diw wongee wong woo mu wongoon am na fekk lu ma suñu borom defaloon su naqari gëm a naqari sama xol suñu borom nangu ba ma fa jógee di ko wut di ko wut amaat naa ko fi mu ne du delluwaat mukk di fa fekk diw mu di ma wong wala ma fekk ku mel ne moom mu di ma wong wala mu may def lu mel ne wong mu di ma naqar suñu borom di ko nangu bala may dem damay nit ba xam ne mbindeef mu ñu bind mënatumaa def lu ma naqari may soog liggéey bi nga xam ne moom la liggéey ci géej gi bu ñu dee nettali naqar yi ak tiis yi ko ay conférence yu bari dul loo xam ne boo keneen defoon itam lu rafet rek lay doon naka doon am na bis boo xam ne nekkoon na ci béréb boo xam ne dafa tumuranke gëj na béréb booba amul yàpp amul jën amul dara xelam dem ci benn bis mos a jënd li ñuy wax boîte de sardine mu jënd ko pour jëfandikoo ko bi nga xamee ne jëfandikoo ne lu tut li mu ciy jëfandikoo ba noppi daal di fab saabu raxasu bépp farlu ci raxasu ngir bañate genn xet goo xam ne gii dana ko takk ba buy liggéeyal yonent bi du xeeñ dara fab li ko lañ fab lépp loo xam ne dina war a dindi xet ba wóolu ne dara ci xet desul ci moom ba mu fabee xalima ga rek ba mu tàmbalee bind nee na la ilham ba daal di mel ne fuudar boobu maanaam dënn goo xam ne dafa dalee asamaan rek ne wa minhum allazina yuzuuna a aw yaquluuna a uznun qul uznun xayrun lakum am ni nga xam ne noonu la alquran jajjee woon gaa ñi nga xam ne dañ daan lor yonente bi ci seen wax ak seen jëf maanaam li nga xam ne noonu la aaya jooju di gendiku mooy yow si Ahmadou Bamba li nga xam ne jëfandikoo nga ko nit simple war na koo jëfandikoo waaye ku mel ne waru koo jëfandikoo yow kon yaa ngi lor yonent bi ci xet goo xam ne yonent bi sopp ko mu tuub ko ba jëfandikootul jën jëfandikootul yàpp ca jamono yooyu le ndax ban heure jot dem sept heures ba sept heures na dem ba kañ ba sept bismillah waaw <coughs> wax na ne du jamono yu mu njëkkee gis ahlu badrin yu mu njëkkee wane ahlu badrin waxoon na ne ca keroog ba mu génnee néegi mbàkke baari ba dem jeewal la njëkk a gis ahlu badrin jibril waaye keroog ba mu ko njëkkee wan yeneen nit mooy bañ ko dugalee ci benn hangar boo xam ne dañ fa boole militaires yi lañ fa dugal nga xam ne du ñu ay jullit sàngara si ñuy naan di ko tuur seen saw mi seen sobe si seen tux mi saxaar si ak doom beeg lépp di ko xiise di ko naqaral di ko buruusu saxaar si di ko tuur sàngara si ba mu am ci tuuti naqar mu seetlu ci xelam ne ñoom ñii kat li ñuy laabadi laabadi li ñuy sobe sobe ndax li ñuy yéefar ay malaayika yoo xam ne ñoom la ñuy wax raqib ak ñu ngi ci seen kaw mbagg yi di bind li ñuy wax ak li ñuy def te kàttan gi ñu am ba di ko jëfe loolu lépp ay malaayika te leen ci seen sobe si dara laalu leen ci seen bàkkaar bi kon it moom it war naa mën a jéem a muñ loolu mu daal di defale loolu boppam ba muñ ko waaye bi nga xamee ne génn nañu dem ci seen bërëb bi ñu daan def seen exercice ñu janloog ay gawar yoo xam ne dañoo wari fas kenn ku ci nekk sa nuuru bakkan na ngi tol nii amee ay kaala yu weex tàll di ay malaayika yi sàppee nekk diggante asamaan ak suuf raglu raglu woo xam ne ñoom ñëpp dañoo tiit dellu gannaaw fekk booba ahlul badrin la loolu moo tax mu ne yasara lil muna la daali mbir wali man qaada lii ma raaba an kulli wali la daali mbir wali bi nga xamee ne nag tiit nañu ba jaaxle seen kilifa gi daal leen di wan ne képp koo xam ne waxtaane nga lu jëm ci mbir mi daañu la def loo xam ne lii dootoo ko nekk na nga xam ne jëru ko bi mu dikkee nag moom muy day sëñ bi di ko laaj ne ko waaw yow daal boo dafa ne xam ne teg nga leen fi béréb ñoo xam ne boo namoon def dara wala la wallu nee na a demee di ko laaj noonu daal fekk na booba xam nga xam ne noonu loolu demee ba depuis loola la suñu tàmbali yonent bi nga xam ne sallallahu taala wa sallama sëñ Tuuba melatul ne nit koo xam ne dafa am xam-xam sopp fi bi jaamu ba jege ko xam njëriñam di ko tagg di ca am tuyaaba dafay koo xam ne lépp lu mu bind dafay lu war a jaay loo aras léegi dafay loo xam ne lii xëymaam mënee si ko xiyaas du yem lekk bindee fi ndax sallallahu taala wa sallama nee na amul lenn loo xam ne lenn ci gën na junni ci lu dul doomu aadama xam ne kon foofu dafa dal ba mu dikkee ba mu tolloo ci martaba boobu mboolem lu ma soon a way tagg yonent bi yëpp daf koo wayaat xam ne ne way na gis bu ñaari yoon way na mu waay bu ñaari yoon xasida yu bari daf ko defaat ndax dafa mujj ba toll ci foo xam ne buy bind day janloog yool bi lu ci manqué mu xam ko mel na jëmm joo xam ne bu bët manqué nga xam ko bu nopp manqué nga xam ko bu baaraam manqué nga xam ko lu ko mu dellu nag bëgg jëfam yëpp demee noonu tax mu delloowaat ci lam tàmbale woon nga xam ne foofu waxtu woo xamee ne def na loo xam ne sax du doon njuumte jàngkat yi mënuñ cee dindi dara waaye yool ba mënoon na fa ëpp yonente bi s alayhi wasallam ci boppam moo koy jàjji bokkañ ci bayit yooyu bayit bu mu bindoon ne xaasa nabiyullahi ma la ya'lamu illa allazi lawhu lahu wa qalamu ba ko bindee rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di ne ko neel xaasa rasulullahi ma lam ya'lami illa allazi xaatabahu bi kalimi ba mu bindee loolu rek daal di jàndoog yool ba gën fa mu daal di xam ne yàlla ittewoo na ko yonente bi ittewoo na mbiram bu nu dikkee ci maanaam xaatimatul maqaas ñi nga xam ne daal si lañuy mujje ci mbirum sëñ bi bi nga xamee ne dox na yoon woowu ñuy wax mooy suluuk ba àgg ndax suuf yéene yépp ku ci ne am nga sa expérience maanaam sa itinéraire spirituel fa mu jeexe ndax li ma waxoon ne aljudul ilahi maanaam tabeg yàlla gi yemoyewul yema yema mbile mbile fi yemle wuñ ci noonu la dal di bind jaawartu bil furqaani rabbi al muhin ci bi nga xamee ne tamkin ak baqa àgg na ca ba weesu ko ci la bind xasidak saana ilaahi xasidak saana ilaahi googu ak wa innahu la kitaabun azizun ak alqalbu min ne fii dal yawmi qad salima saana ilaahi googu nee na ba ma ko bindee taxaw na taxawaayu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xare ba xare yim xare yépp nga xare ko taxaw na taxawaayu mboolem aji jihaar gi fi ñëw ci kaw suuf jihaar fi ngir yàlla ak yonent bi taxaw na taxawaayu yool ba nga ca am loolu motax tax mu ne duuna makaatibil ibadatu ma an kull al mazaya jamaa mbolam li xeetu jamu yàlla yées na sama bindu ma bind ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na tumuranke gima ma tumuranke won ba liggey liggey bobu yàlla dajalal na ma ci mbolam li xeetu may nee na ajuru lazi naasaani walam yatub shaqawatun tadumu fi ummil kutub nee na képp koo xam nga ak man te tuubuloo ko sa sa pay moo texe goo xam bind nañ ko texee di goo xam bind nañ ko ca ndeyi téere te des ko far mukk nee ba mu njëkkee xool la wax ma foos phrase ba maanaam jumla jëm ci njëkk liir moo di chaq ya man lam yax wa képp ku la soppul texee dina loolu képp koo xam ne xam nga tasawuf da nga xam na mu demee daan waxtaan ba àgg ci jombul bu na ko ci tàng bi mayee mu boole ko itte joo xam ne bu xooloon aw doj doj yi pour ci yéene mu randu doj yi dana dal di randu ndax am na ay yàlla yi koo xam ne ba mu bëggee xamel taalibeem boo xam ne soo bu na yoon wi te àggagul daf ne ko képp koo xam ne ak nga ci am ngërëmal yàlla na mu waree soo xoolee ku ñàkk ci yéene mu am mu dal di am soo xoolee ku tawat ci yéene mu wér mu dal di wér soo xoolee ku texee di ci yéene mu texe mu suñu borom dal koy texeel mu ne ko waaw kooku meloom nan lañ koy xamee mu ne ko kooku de bu xooloon doj yi rek doj yi dal di ruy ba mu xoolee doj wa rek ba mu koy wax rek dal di xool doj wa dal di ruy ba nekk ndox seey ci suuf sëñ Tuubaa ne saqaa man lam yahwani qad kutiba wa kawni abdal xadima wajaba texe di képp koo xam ne soppaloo ma bind nañ ko ca àll waja ndax xutbul xawsu dafay koo xam ne moo wuutu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf te nee nga xamee ne annubuwatu laa tatabaadu maanaam prophétie du séddaliko yonent yàlla yi li bari bari kenn ko ci weddi mel ne ne weddi nga ñëpp wali nag du noonu mën nga weddi ki gëm ki waaye du xutbul xaws xutbul xawsu moom xutbul xaw su mën na def nëbbu mën na feeñ bu fekkee ne dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci baatin te doon ko ci saahir dana nëbbu kooku du feeñ kooku ku ko weddi itam du la wàññi dara ndax yàlla feeñalu ko nammul jaam ñi xam ko bu fekkee nag suñu borom dafa namm mu nekk yërmande jaam ñi ba mu wax loo ko ne ko ne leen neel maay nangam maay nangam képp koo xam ne kii weddi nga ko mel na nga weddi nga wàlli yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp loolu moo tax mu ne saqaaw mën la yow kat kutiba itte jooju moo wax mu ñibbisee mu waroon a bind sëñ Issa jenn lettre bi mu bindee lettre ba bind tur ba bind Issa ji bi mu bëggee bind jin jenn ji xelam dem ci jinne mu xam ne su bindee turu jinne yee jinne yi daañu fàdd Issa fàdd Issa mu dal di bàyyi waaye teewul xelam ni mu ci dem rek keroog naanul lu mu xam ndax jinne yi ko fitnaal moom sëñ Issa daañu wax ne mu ngi ci jaanu karamaati la wul awliyaa yi dañuy ku mënul awliyaa yi dañuy toll foo xam ne lu seen xel dem rek yàlla def ko am na benn wali boo xam ne dañ ko mësoon a invité fekk booba ñu doon tabax seen benn ne kooku invité na ci këram bi mu jaaxaane ci lal xool ci kaw gis eh, bu ni mel dana jekk ci suñu zawiya ba kon dana àgg noonu yàlla di dogal ba mu génnee rek dégg nga kii daal eh, di jaay bant ya ka ko jënd daal dem def ko ca zawiya ba ba doon tabax nga xam ne ñoom lépp lu seen xel dem rek suñu borom daal di koy def ñi nga xam ne nag dem nañ ba àgg ci fas da bi maa tuumaru mooy ci gën doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak baatin yàlla wax loo ko ne ko neel ne leen maay xéwalu yàlla ci kaw suuf man la yàlla di xettalee jaam ñi cheikh ibrahima dasuqi ba mu ko waxee ba noppi dafa ne laqad wa ma qultu hadha alqawla fakhran wa innama ata aliznu kay la yajhaluna tariqati wax ji ma wax kat li mu rëy rëy rëy waxuma ko ngir dam waxuma ko ngir puukare waxuma ko lu dul suñu borom moo ma sant ne ma nga wax ko ndax nit ñi bañ laa umpale ndax sama yërmande nga ci kaw suuf ndax jaam ñi xettali ko waxtu woo xam ne nëbboon na ko dana def bàkkaar loolu moo tax sëriñ Tuubaa ne zimaamul wala asri la dallahi fi yadi wa maarumtuhu min malikin qaada bil handi wax nañ ne waliyu ni muy rusee def karaama ñu gis ko ni jigéen di rusee feeñal deretu reegalam la waaye loolu am na ay seetantal Cheikh Ibrahima de Soxi moomu bi nga xamee ne yéefar bi tooñ na ko ba mu seet ne war na koo yar dafa bind lettre jëmale ko ci moom adressé ko ko lettre bi ñetti bay rek la ci def sihaamu leyli faidatul marami ida wutirat bi awtaari lxushuui yusaddiduha li marmaha rijalun yutuluuna sujuda ma arrukuui bi alsinatin tuhamhimu fi duain bi ajfanin tuxarxiru biddumuui ida awtarna suma ramayna sahman fama yoxni taxassunu biddumuui dafa bind ci lettre bi ne flèche yi nga xam ne guddi lay jóg bu ñu mooy mukk seen bit waxtu woo xamee ne ki ko loogal daf ko loogal ak xusoo maanaam ragal yàlla mu ànd ak ay rukkoo yoo xam ne góor ñi ko sànni di góor ñoo xam ne dañuy yàggal seen rukkoo guddi ngir jaamu yàlla seen naji bët day sotti ay rangoñ ngir ragal yàlla guddi ñoo ñu de waxtu woo xamee ne naat nañu fett googu ba sànni ko mbubbum koŋ wala tata wala miir dara dootu jëriñ dara faaw mu dal bi nga xamee ne yéefar ba ba mu yónnee lettre bi mu xottee lettre bi di jàng ba agsi fa maa yoo xam ne taxasunu bi doo rek fett gi dal di jóge ca biir lettre ba dal di dal ci dund bi xotti xol bi ba sar ma ne loolu kon ay settee ki li ñu waxoon ne noonu la ñuy rusé ku gis seen karaama waaye nag bokkul ak ki nga xam ne nekk na xutbul xaw suuf kon bi ma waxee ne bi mu matalee itinéraire spirituel am ba toog nag di dékku may yàlla rek raxas ndabam ba mu set mu dékk ko yàlla fa la toll nee na suñu borom daf ko jox wird yi ko jiitu woon yëpp xutbul xaw si a xam ne jiitu woon ko ber seen tariixa sàkk wird rafet rafet ya ñu leen defal seen wird yooyu yëpp suñu borom jox ko ko ñu ñetti wird yi ba xam ne yeneen rafet yoo fi ca nekk bokku la yeneen ci yeneen yi nee jox na ko ñetti wird yooyu yëpp jox ko alquran jox ko hadis jox ko seeni mbóot jox ko mboolem xam-xam yu jëriñ yi limaale ko mu bokk ci góor yàlla ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wasallam gërëm ko suñu borom gërëm ko ñeenti xutbul xaw si gërëm ko mu jaayoonteeg yonente bi ca suufu garab ga sallallahu taala alayhi wasallam tàng bi def ko matewul waaye kon al mu bàyyi ar tax sax sajara daana ci waxtaan mu dal di mel ci yonente bi ne ñaar ña dëkkaaleeg moom tamit mooy sidna Abubakar nag sidna Umar xat surtout bil muxtaarikal jaarayni na mu dal di jéggi ku ñu Zuhayr ak xasaan mu saabit ci tagg yonent bi ndax dafa ne mulkul aalil baaqi qadim jaalana asna xadim nguurug aji kawe ji nga xam ne mooy yàlla nga xam ne prééternel la tàmbaliwul fenn naka jekk mu ngi fi def na ma man may ñi liggéeyal yonent bi ñëpp ka ca gën a yëkkatiku asna xadim nga xam ne nanguwul jébbal ba suñ borom ne ko bii lus yi lus bii waxal ne ñëw leen jébbalu ci man boobale ko bis yi ak weer yi ak at yi yëpp daal di ñëw takk ko xarit ñu yëkkati kaaba gi di ko jógee ci béréb ba mu nekk ba di ko ko indil si mu di ci siyaare fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci mu daal di am maqaamam xalilullah ibrahima alayhi salaam waxtu ci bis man julli bopp bismillah naa ne bari lu ma ci dagg ndax jamono bi moo ko mayewul ba itam li ci def fekkee ne gënal na leen mën nañ ko yemale fii déglu laaj yi ñu waxtaane ko bu leen soobee itam ma àggale ko ñu ñibbi ak jàmm lu leen ci gën a mën nañ ko li ci nekk daal moo di waxtu wi ñu waxoon ne ci lañ koy yemale gee àgg nañ ca ba teg ci fanweeri minute xëy na ñun seenoo woon ne jamono bi yaatoo na ni ak gu ca tax na li ma wacc te bëggoon koo wax ci biirum tasawuf li ma ci bàyyi bari na lool toll na na li ma ci wax bu ko ëppul kon nag bari na li ma tëbee itam fi ma ci dal muy li nga xam ne ñi ma woo di ma waxtaan loo moo leen gën a itteel muy mbirum sëñ Touba ma tàmbali ci li ci def mën naa ko eggale nu ñibbi mën naa itam bu leen neexee nu dem ci laaj yi te ma yem fi ma yemoon kon ma àggale ba kon nag ma àggale ngeen déglu loolu laa bëggoon àggaleel iztu jami al aqabati tayya wallahu anni xattama alayya ne suñ borom may na ma tay tay mooy lan taxañ yoon wi nga xam ne ci nga waroon a jaar bu jóge woon ci bëgg a dem ndar wara a dugg oto wala nga war a dugg leneen nga gëm rek ñu téye ci sa loxo nga xippee ndar loolu mooy tayyu متهمني طويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد قضى الحاجات بالروض والبسط نينا جاغلي كو يالا جاغليل مو نيك خادم رسول دي تاغ يونس صلى الله عليه وسلم نينا بو كاي تاغ ريك داغ كاي تخانيال يونو غاني باخني ci waxtu bi mu koy tëgg loolu moo tax mu ni laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqahu mawlahu nee na du um ku dul ko texee di ku borom texee di mu ni foqtu si waaye bi xitaabil baaqi nee na kawe nekk lu moom ci waxante bi yàlla waxtaan ak moom mu ni naajaaniyel munzilu bil qurani xatta xadawtu mawrida zamaani sun borom ni wàcc alquran déey na ma sekare yi ba ma mujj di naanukaayu képp ku mar nee na yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir nee na bépp waliyu buy njëkkante àjjana loo gaaw gaaw moom da ko fekk mu toog fa malikul muqtadir fa suñu borom tabaraka wa taala lu ko ëpp sax la wax nee na bamma xayaat yi li xayaatillaahi allahu daaxilan jinaan allaahi nee na sama borom fab na sama dund def ko nii dund dundug yàlla ma tabbi ci àjjana ji nga xam ne mooy leer su jëmmi suñu borom loolu taxoon mu ne سبقت بالطريق قوما جاهدوا زمنا احيي العشيه لمن يحبو بمناتي نينا جيتنا غاي يالا يو خامني جهار نني سي يون لو يغ يغ يغ يغ ما خي رك روملين لوتاخ مون سوب غيما سان بروم سوب با جاغلل ما سيكري سو خامني مان رك لاكو دنتال تي اومب نك كيب كودول موم سون بروم تبارك وتعالى موي ولي قاد سرا غاب ان غيره المحيي من طواف كل من علي انكرا عند الاله والنبي لن يفتراه nee na képp koo xam ne weddi nga ma boo demee màkk di wër ca Kaaba ga it sa wër boobee yàlla santu ca yonent bi santu ca nee na yaquudu li xaytu akuna allahu tabsira la ilaha illa allahu fépp foo xam ne nekk naa fa yàllaa ngi may wommatal mbégum la ilaha illa allah mbégalum la ilaha illa allah nee na suñu borom boole na ko ci ahlu badrin te ahlu badrin te daañu di wax ne mboolem ku bokkoon ci ñi xare woon badar ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen fas ya may génne ca gémmiñu fas wa yoolam buñ ko peeseeg jëfi dundug wàlliyu purit ma wat ko waaye aqwaluhum tutwa wala tunshar ñoom seeni wax dañ koy taxañ te kenn du ko lemmi fi mu àgg daal li ko gënal ci fi mu àgg mooy nekk abdullahi wa xadimu rasulihi abdullahi wa xadimu rasulihi abdullahi wa xadimu rasulihi mooy xaatimatul mataaf suñu borom gis na ko ko buy tudd yàlla di tudd yàlla dana dem ba nga xam ne baat bi muy tudd maanaa mi rek taxaw ci xolam waaye dootu yëg ni lamiñ bi yëngoo bu boobaa malakoot yëpp dana ubbiku dana jàndoog aras jàndoog kursi yu jàndoog malakoot yëpp jàndoog roox yi lan bi ay dégg seen wax ñoom it ñuy dégg waxam bu toppee pratique boobu dana dem ba dootu aajo woo wéet ci béréb wéet bu mel noonu bu tuddee yàlla tuuti fàtte adduna rek dal di janloog lawhul mahfuz alluwa ji nga xam ne ci la boroom bind lépp luy amee ba saa taxaw dana dem ba fu mu toll du aajo woo sax wéet du aajo woo gëmm du aajo woo tudd yàlla day dal di mën a liir lawhul mahfuz أن الإسلام لم يبين عقوبة لذلك لا عذبتك ولكن توب إلى الله أمنا كيين كوي دوغري جيخي تنجالو نك سي بتم سيدنا عثمان بسيرام بو فور بوبو ميغا خامني نون لا خولام بي مانا جيسي يمول سي خامني واجي دفنا بكار ندخ أمنا ne mi ngi mi ngi jóge ci àdduna bi muy gaañu te mu woo sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha di ko wan li mu am ci alal pour nañ ko war a donne mu ne ko yow benn mbokk bu jigéen nga am ak ñaari mbokk biir doomu aadama nada nas né? am kuy tukki nga am gànnaay nga ne ko ci misaal limaamul Xasaali dafa newoon dafa mel nekk picc yi dañoo mas a toog ba mu yàgg ñu waxtaan ne nun de war nanoo am buur te kon am nanu buur nag war nanoo xam buur boobale bi ñu seetee ba xam ne buur bi am na fu mu nekk ñoom ñëpp ñu dajaloo ne nan seeti suñu buur waay am ñu ne waay bu leen sonal seen bopp ban amee ba léegi yàgg na te noo ngi dund dara jot nu kon ñàkk goo xam googu nu ñàkk xam buur bi leen sonal seen bopp ñenn ñu ne xakaay ah nun daanu dem yéen da ngeen amul benn ittee seen bakkan dafa tuut yéen a ma yemale seen bopp ci lekk naan dong nun nag daanu xam buur bi xam nam demee dégg nga ba mën a askanonteeg moom am moom ak cër ba ñu dajaloo daal di jógee fa ñu nekkoon yoon wi ñu jaar metti béréb bu sedd ngi fi yoo xam ne ñi dekkoon ci réew yi tàng bañ fa tolloo dañoo dee béréb bi tàng ngi fi yoo xam ne ñu jógee woon fu sedd bañ li rey leen ñenn ñu xiis bi ñenn ñu mar wi ba mu des kuréel bu néew bu àgg kuréel boobu ba ñu àggee nuyoo yëglu ba ñu leen nuyolee buur ba ne ko ay jaamale nuyu mu ne waaw dama laajal ma jaam ñooñu ñooy ñen ba ñu xamle seen bopp ñu ne leen nañu agsi bi ñu agsee mu la buur bi laaj leen ni leen waaw yéen ana lu leen indi lu ne de dañoo déggoon ne am nañu buur rek ba nu laajtee ba xam ne ba xam su nga nekk lu ñëw mu ne leen ah sonal ngeen bopp lool nag ndax man bu ngeen ñëwee maay buur bu ngeen ñëwul it maay buur maanaam daal man doylu naa walis dara aaju woowu ma dara waaye nag gannaaw yéen yëg ngeen war a xam bu ngeen ma war a xam ba ñëw danaa leen teral ba képp ku àndul woon ak yéen dana récc lu mu doon dese danaa leen teral ba du ngeen dolla du ngeen bëggatee dellu fu ngeen dëkkoon dafa leen ci xeeti teranga ak xeeti xéewal ak xeeti may ak lu seen xel daj ak lu seen xol xel dajul ñu ne nag ñun dootuñu dellu fii la ñuy toog dëkk fi mu ne leen déedéet ndax yéen picc ngeen te man du ma picc da ngeen war a dellu ci picc ñu ne ko waaw léegi nag liñ la bëgg a laaj moo di waaw gaa ñi nga xam ne ban leen ne nañ leen dem danoo bañ ñoom luy seen xalaat luy seen pexe mu ne ولو اراد الخروج لا اعدوا له عده ولكن كره الله ان بعثهم فثبتهم وخلق ادوم على القائد بو فكونا يالا بولم من من انت بوبم بان مو نيو كون داني نيو كون داني واج كون داني خارو خارو بو خامني تا مو لين دي تا خامني دوخ اندك يين با نيو ني نكو ني نانغو ولا نيو اندك من نك ديتي يون اك سوني مو ني هاي هاتا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله واو كيب كو خامني جين نغا سي نيت نما جيم سي يالا اك يونتبي غناو بي دوبال بي ام نغا دي sa yool na mu waroon a mate boo agsi woon yàlla dana la ko mas ndax niyyatul mu'mini ablahu min amalihi ñooñu nag ñooy awliyaa ullahi yàlla yoon euh, wali yàlla yi nga xam ne dañu dikkee ci àdduna seeni roo dafa yëg ne am nañu borom borom boo xam ne mënuñoo def dara waa dem nu mënuñoo dund mënatuñoo am benn xaraar te yëguñu ko demuñu ba mu yëg leen amuñ dara lu bokk ñëw fekk tarqiya kon bu ñu waxee ne ñeent la ñooñu as-saalikul mujarrad mooy ci soobu sa yi te amagul fatxu ñu ne mën mënu la àggale kenn ci yàlla ndax àggagul xamagul baatin xamagul lu lox lox fi di topp mooy ay majduub mujarrad nga xam ne dafa juddu ak ay leeram waaye jàngul jéemale jàppantal yoon tasawuf wutul ngërëmal yàlla kooku mu am mën na def kéemtaan waaye mënu la àggale kenn ci yàlla ndax xamul yoon ni ma su koy jaar ak saalikul majjub mooy ki nga xam ne jàng ne ni jàngkat yëpp jàngee am xam-xam foogu yoonu tasawuf ba am fatxu dem ba àgg ci yàlla kooku mën na xett ni daañu nangu ñaanam mën na àggale nit ci yàlla waaye al majjubu saalik nag mooy doon sëriñ sëriñ si mooy ki nga xam ne daf koy judduwaale ba noppi jaar ci yoon wa mooy ki nga xam ne mooy géej gi li nga xam ne ni xeeti yéen awliya yi bari nañu seeni martaba mu gën a bari ak seeni xeet ndax duñ ci bokk bul xaw nga xam ne moo seeni kaw ñëpp ku dul borom maqaama xurba ñaar ñu topp ci moom kenn ci topp ci moom mooy alwatil ñaar ñi ci toppaat al imaamaan lañ leen de ñi ci topp ñeent lañu al lawtaat lañ leen di wax ñi ci topp juróom-ñaar lañu abdaal lañ leen di wax waaye am na rajo bi yéena am na am na nuqaba am na nujaba am na xawaari yéena kenn mënu koo takk lu dul yàlla rek te xam nañu toll dañoo bari waaye léegi ñoom bu ñu bokkee àgg ci yàlla itam may wute na ñaari nit ku nekk mën naa amee sa bi ci teen bi mu dugal kenn ku ci nekk dafa ndab fee te kenn ci dana mën a may moroom mi ndox fukki yoon ndax daf ko ëpp paan Kalau bersih pendak. Jika itu selalu lagi umute, bentuk mana? Dan kata buku ni, si zaman ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amni kuni dan wah. Jadi dia kami moom la ñu tuddee woon waysul xaram yi ci jamono yonente bi la nekkoon waaye mosul woon a ñëw tam béeru ko ci saaba yi ndax di ko fekk si yonente bi ndax topp ko yaayam ji màggat moo tamul farata ci moom moo tax ñëwul woon waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ne dañu la ajibu nafas rahmaani min jaanibil yaman mel ne ku daal eh, xeetu yàlla ngi ne xeeñ ci wet jii te fekk booba waa fa nekkoon nee woon ne képp ku ko gis na ko ñaan loo yàlla ku mu jéggalul yàlla dana la jéggal lu mu ñaan suñu borom dana ko def sidna omar ak sidna lin ñoo ko gis liñ ko gisee liñ sàkkoo ci moom ñaan mu ne leen ngeen ku jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ñaan loo kon ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon ku la gis nga la ñaan loo ndax leen ñaan yàlla dina ko nangu mu ne naa mohamad ibn abdullah ngeen di gis leen ci lu dul takk loram ñu ne ko ha mu ne waaw ñu ne ko ba sidna abu bakar sax mu ne ba sidna abu bakar sax gis lu dul takk loram ñu ne ko yow nag ndax xam nga alxaqati muhammad yi dëgg dëgg mu ne man da ñaanal naa borom dina muril ci raay yi yi ma mu dina muril dina muril dem ba ci ñaar fukki junni ci raay rek waaye benn bu ma sa jógee ni karaw di seey ci safara laay seey mu leen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ummati kal matari la yudra awwalu khayrun am akhiruhu sama xeet yi kat ñu ngi demee ne nawet xamuñu njël benn jee gën xamuñu mujj jee gën kon nag mënu ne ñu jëkkoon ñu rek ñoo gën ñu mujj ñu ñu ne leen ku wax ci wax abdul wahab taarani radiyallahu anhu nee na suñu borom xamal na ko ci qadim mu delloo ci lawxul mahfuz képp ku aju ci moom mu xamal suñu borom xamal na ko sa turu ndey ak sa turu baay xamal ko sa place ci àjjana kon nga xam ne suñu borom maye na ku ñu abou aziz al bistani nee na safara ci alakhirah bu ko gisoon moom dana ci doxay safara dana ci doxay bu ko gisoon kon ngeen xam ne suñu borom maye na xëy na waaye am nañ juróom benn téeméeri xam-xam yoo xam ne ulama yi xamuñu sax tur ya ku ñu waa sufyaan tawri bi ñu faatoo ba amul biir bokkam min gënoon a jegool bi ñu jënte gis ko dafa ne ko naka nga def ak suñu borom mu ne ko nazartu ila rabbi iyaanan wa qaala li hani an ridayi an kayat na saidi لقد كنت قواما اذا الليل قد بدا بابره مشتاق وقلب انيب فدينك فاختر اي قصر تريده وزرني فاني انت خير بعيد ni ko man day jakarlo nak sama borom tabaraka wa taala ci melaw wala do ila nan manam ci jakarlo mu ne ma ndokkel naa la maa ngi lay ndokkel man maa ngi lay félicité gërëm naa la lool yow ibnu saïd da nga taxaw taxaw bu yàgg guddi ànd ak sa bët di sotti ay rangooy ngir ragal ma ak xol bu way comme ndax topp ma ak nam ma jëm si ci man kon léegi jigéen bi yaa ngi nii tànnal lu la ci neex nga dëkk ci da nga demee ziyaare rek du ma la ko di mukk dana suñu borom tabaaraka wa taala moo ko wax loolu la kon nag gis nga al ak itam avec yàlla ji jàmm ñoom nañu ci man kaana lillahi kaana allahu lahu suñu borom nee na képp xam ne ci dox nga jëm si ci man ma waaxu jëm si ci yow képp koo xam ne ci waaxu nga jëm si ci yow danaa cal jëm si ci yow ku cal jëm ci yow ma daw jëm si ci yow kon dama adama fàggu dong la man li ci des yàllaa ko amee dal gis ne kon nag loolu ci loolu muy dal di dugg ci Cheikh Ahmadou Bamba nag gannaaw dañu woon moo di moo di tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba moo rabbi la woon way kat demee na ak Cheikh Ahmadou ni'matun awlaaha haadi alxalaa'iqa kullaha mawlaaha nee naa Cheikh Ahmadou mii day xéewal la boo xam ne suñu borom daf koo xéewale mboolem bindee fii mel na saayir ba nga xam ne naaru gànnaar sa borom xam-xam yi moom la wax am na place bu ma joxoon sama communication boobu woon ci semaine culturelle bi waaye nag dama ko bindoon tubaab mu kon dinaa ko lii ndax introduction la bu juboo ak li ñuy bëgg a wax aajoo bi nga xam ne jamono ji ñu toll noonu lañ aajoo ku mel ne moom di ko roy dañoo xam ne ndax moom ko roy adduna ak àllaaxira ngay boole am adduna bi sax بقول لكم نعمل يعني وقلل للرقادة فارق الكسل وقلل للراحة قصر الأمل من يعني وقلل من الميل الرقادة سيملو فارق من تقلكم الكسل التايل وقلل من الميل الراحة النرطلاي قصر من اللمس اللمت المدد من دقس سيملت ممكن يكون باتريوت بوخمنا يكتب يكتب يكتب الاسلام في يكتب يكتب يكتب bàyyi na fi ay jeexit ay vestige yoo xam ne ba bés saa di taxaw insha allah day gën a jëm kaw donc nanu maanaam encouragé nanu bu metti yëkkati ne sunu climat taarixiya yëkkati ne ëpp nit ku ñuul te ba mu jafe ba nga xamee ne xel xalaatul wax loolu ومن لا يزدك مدن الزمان أن أخذه كوني من السودان سمتين بما بل مدن مسالك الجنان بل نرد من كل الله بما تفسير بدك جانب بتجرنه الأغنياء العباد عند الله أكثرهم تقوى بالاستباع ما خمنا كجنا جل يلا كجنا تعب خيالا ما كجنا رجال يلا دكوا نيل دكوا يهدوا كنيل لأن فليس يجب سواد الجسم سفاهة الخطأ أو سوء الفهم ورا ويورك ورا من خل مقط ورا للجد بنياو ولا تخفف فضل رب قد على به تقدم فقد قد هلا بالجبل لتم من جنون يلا ممجنين يجيتون رك وسنين بوقت هذا الرجال فالطل قد يبدو امام الوبل والفد من وبل لا للطل نينا تو بنيو نيو بو واخ بو نتو تام فني من لا جيت وانه توانه مو انا ندمل لا كون بوكو جيت رك يا جيل مي نيتو تخال في لولو ني نك اورو ناسيونال بو خامني سي بو جيم نون ديني بي تك في سي بير اك بيتي تا لولو مو نك داف كو ديمونتري نيتام نارو غانارو نيت كنيل ني ديت خاب نيت كو واخ لي مو خاب نيت كنيل nangul nañ ko kenn ci ahlu tasawuf ci waa gànnaar bi ñu tuddee ñu ñu tuddee sama atur rijaal maanaam juróom ñaari góor yi nga xam dañ ne pour tudd seen tur subaak ngoon da nga mucc ci bépp musiba dafa nga mucc ci safara ki nga xam ne moo yëkkati turu tuba boole ba tane ci la bokk du wala du sénégal naar gànnaar la kon nga xam nañ ko معروف اويس ابو والغزالي ذكرهم من المساجد من جهنم هو أصحاب من القبل الخديم وأحمد من مثله في الغرب ليس يوجد في القبل الخوص بن حمية كو خمد رحم لأن يكون القبل الخوص من الشيخ بعد أبيه رضي الله عنه بيسن تبا جيجي في جيجي نبت يلم الإسلام دكتور بيسن تبا الإسلام تبا كل الوقت يلم دخل في ملانك بنت مران كوان أكتوس من مكوان النقر من خمنا نون لكو حمي دين دوا حمي دفا دموت دوما مخيف مر rafle tumuranke bi yaayam ñëwee ni ko war a eh, noonu la lislaam mel noonu la dégg si dikk si sëñ Tuubaa dellu si jóge si géej gi mu ne ko maadinuhu fa asbahat fi tilka al-buxuuri mubaara mu ne ndellam yooyu mu nekkoon mu di nii nii nasaraan yi ko ca mu mujj biir fu amul benn ndend amul moroom jóge ca géej yooyu géej اني اندي الدين الغريب الذي قد ياتيه سرورا منكم وافتخارا من ما ني وقت الدين دي خامل دا تمران تي وون ما خامل لي دي ني بيسي ني دينا دي دي بوكري وون دي سيغري ندير بو دك سي ني دونو يتوا عجبا باب المتاج مفتح لكل من يراه من الجوار دي بنا تي دي نيا وي ما تنجي تحمل يعني كل كل نكو وعلى وجهنا فيه ñu daal di xam ne nit moom koo xam ne képp ku ko xam ak réew nationalité boo mën a amee dana yéemu ci moom kat da nga def li ñuy wax itiraaf maanaam da nga reconnaître supérieur jëm daal da nga reconnaître supérieur jëm daal ndax man bu fekkoon ne dama xool ci saa yéem rek dana doy sëkk dana doy sëkk ñu puukaree ko ñun waa Sénégal ñu xeet ñëpp ci jamono bu nekk itam ndax xam nañ ne ñi nga xam ne américain yi dañu ñëwee dañu seet l'homme le plus influent du monde de tous les temps ci ëpp ci gën a influé ci ci doomu aadama yi ci nit ñëpp ñu dem ba ñoom seen bopp ak li ñu dul jullit yëpp ñu dem ban la sallallahu alayhi wa sallam ndax seet nañ ko ci critère bu nekk ku nekk leer na ne bu ñu doon seet l'homme le plus influent ci Sénégal it amul la war na ne ci fayda ci am bopp ci takku ci njub ci am fit ci mën a muñ ci doonu ci wóolu yàlla ci ngor ci bañ a ragal kenn ku dul yàlla bañ yaakaar kenn ku dul yàlla ndax buñ ko nee irkan dafa ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatini tahus jawaa'iz tughni kulla maa'ini faqultu hasbi rabbi wattaqi fihi walastu atlubu ghayra al-ilmi wa dini ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيه من ديني. من تعمل ndax li ñu doon wax ne wàllu yi ñett lañu teen ak dex ak géej ñu wax ci daal istidaad bu mat ñu seetee ndawam daanu seet ne daan gis ne lu kéemaane kéemaane la mënul baaxul xadim boobu sëñ Basiru Mbàkke bind wax na ci ne ba mu nekkee xale bu tuuti buñ ko masaan boot buñ masee sóobu ak moom mbedd moo xam ne benn ñu ngi fay fawala ñu ngi fay def lu neexul yàlla dootu ànd ak sagoom ba ba ñu koy génne mbedd moomale ñu ne bu mu sànn guddi daawul nangoo te dégg waajuram ci benn lal nee na béréb bi mu daan gën a taxoo mooy fa ñu jullee jullikaay ba dafa daan nekk di fa tëdd ak di fa toog ba ñu sikki sàkk ci ndax ci nit la nit yaay la wala déet wala leneen la ñu nit ko xar baax ñu wax xaadisul wala xaani xam ne ahlu tasawuf xam nañ ko ñu ko gënoon a xamal mooy ci ahmadul badawi nga ne mooy ni ma misaale woon ne ndax mel ni secret bu diis lañ leen di yen ñu am namm gu ñu namm béréb boo xam ne nit ñi xamuñu ko namm goo xam ne dina leen tàggale seen sago dañu leen mel ne di leen tàggale seen xel yoo Ahmadul Badawi def daan yéeg ci kaw terrasse taxaw ne jàkk benn benn tomb rek ci asamaan si lu def weer ak lu topp du xef du randu du wàcc du lekk du naan ba mujj nag ba tey ji dafa xonq kay yi mel ne xalu safara yoo Ahmadu Bamba ni mu ko dikkee woon ci wetu ndawam la dafa meloon ne ku nitee di ko lañ daan wax sax booba dafa moor ante sali bi daf naa gis kenn soxna soo xam ne moom si boppam booba xalal la moom mag la trop bi mu nekk téeméer at nee na moom gis na ko ñaari yoon nee na bu muy gone nee na fekkoon na jamono joo xam ne nee na boobu moom ñëw nañu naan dafa moor ante sali bi nee na ñoom suñ ko ma santin sax dañuy daw ndax dafa ne day déere nee na benn bis dama ko ñenee nee na booba dama demoon ci àll bi naka ñu dem ba mu yàgg ñu toog di waxtaan di noppalu muy ñëw dafa garab bu ndaw na suñu diggante man gisuñu ko bi mu ne tëccët suñu kaw ñu tëb ne dof baa ma tëb daanu teqatalu daanu mu romb ma xooluma a xam ne du dóore xam ne kon booba loolu mu yenu woon moo ne woon ci moom te gisul ku ko yenn xamul lu muy def ba tàggoog moom te warul a tàggoog moom itam dafa war a gën a mën a téeñi rek ngir yenu yen ba waxoon naa ne ci Ahmadul Badawi jaaroon na ci loolu ba mu ci jaar mag la woon heure bi nga xam ne ci ndawam la toll woon foofa na ngeen ko boole ci kéemaan yi li ñu sóoboo itam ak sóoboom ci tasawuf lu kéemaan yi la wax ne ni min haajul aabidin la toll woon fekk na xiif naa ci conférence bi lu bare bare bari sax ndax gannaaw xam naa ne itteel na leen na ma dagg lu bari ci tasawuf te kon dinaa leen a wan ay béréb yoo xam ne ay jëf yu mu jëf la ko waral ñu ngi jóge ci min haajul aabidin a ndax moom ci boppam bi woowee xam sa rijaal bu ñu ci mu di koo xam ne tuubam tuubub dogu la ak dogoom li ñu faru la gis la ons na itam ni mu ko defee ku soxar la ci bakkanam ndax bu gundul yàlla mu di nit koo xam ne du neenal dara ci jamono du perdre temps mukk moom directement rek jëm ci biir bi xot woon na boppam ca ba muy xalal bu ndaw yaa taxikul istiraali kulla ahyaani bi taatillahi laa tarkan li isyaani boo ko jàngee da nga daal di xam ne ñu wax ci ku dogu la te am na fu mu jëm te xam ne fi mu jógee xam ne fa mu jëm mbaam dafa daan jàngale ay taalibe baayam di jàngal ay rakkam di taalif itam liggéey foofu itam liggéey boo xam ne bu dul woon ne sujet bi mbirum tasawuf la mën nañ faa yàgg waaye yéene ci jàngale boobu ba keroog bu ko suñu borom di digal ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihum bi darsi ñi nga yar say àndandoo maanaam ñi la topp say taalibi ci himma himma lu doon ndax xëy na daan ko waxtaane mbirum tasawuf la itte lañ ko mën a firee waaye bu leen yare jàngal rek keroog bis boobee te fekk waajuram dawlu na taxaw wax baatam bu dëgg boobee wane ne képp koo xam ne daf maa nangoo ànd ak man soobu ci bi ma na topp yàlla ma toog waaye képp koo xam ne mbir bu xam-xam ak jàng moo la taxaw na ñëw benn ngaa dellu sa sa dëkk fa nga dëkkoon wala nga wuti feneen foo jàngee man maa ngi ci leneen bis naka tey boobu daal mooy bisu dogal ci soobu nag ba yan booba mu yenu woon mu tàmb di yëg ak woyofam ndànk-ndànk te jëfine mu jëfe soo ko fekk booba mu ngi war min hajul abidina ñu des ànd ak moom muy saadiqoona yi mu di koo xam ne dafa bàyyi aada yëpp deful aada lu dul loo xam ne li ngërëmal yàlla nga ca di lislaam amul loo xam ne dafa fekk daf caa fekk nit ñi ñu di ko jëfandikoo mu jaar te di ko jëfandikoo nit ñi jëfe dafay koo xam ne bam jëfee rek di ko itteel di dara lu dul ngërëmal yàlla rek mu wut ngërëmal yàlla ci bépp jéego bu mu jéggi bépp jëf bu mu jëf bépp baat bu mu wax mu bokkoon ci ñi gën a takku tasawufam boobu jaxasoowul ak falsafa maanaam philosophie ku mel ni ibnu sabayin jaxasoowul itam ak loo xam ne lii dafay wane ne doomu aadama bi dafa bëgg adduna maanaam siyaasa wa mat ay nit ci nekk seen kanam moo ca ànd nit ñi ñenn jëfe wax ci xaas cheikh taadu abdini radiallahu anhu jooju mu wax di ndoxte diine ji dafa dëpp xadis bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee ñu dafa ne woon tuuba liman balaxa almi ata rabiata baadal alfi fexe ñeel na ku fekke siyeekalu fukkeelu ñeenteelu gàddaay bi foofa siècle ñeenteel boobu sëñ Tuubaa daje moom ba tax na am na ñoo xam ne borom xam-xam yi xalaat nañu ne mujaddid la ndax mujaddid mooy lan dañu waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na suñu borom dana yebal ci tàmbali bépp siècle ci lislaam waajoo xam ne dana beesal dana renouveler dana yëkkati mbirum diine ji daje nañ ci ne Omar ibn Abdul Aziz téeméeri ñaareel ba maanaam siècle ñaareel ba mooy mujaddid ne imaamu safii mooy borom ñaar ñetteelu téeméer ba mooy da ko beesal di topp sayidina alimaamu buxaari di abu bakr min baqlaani ñoom ñëpp daanaka daje nañ ci ne téeméeru juróomeel bi limaamul xasaali la li nga xam ne mooy sart yi buñ ko seete yëpp daje na ci cheikh amadou bamba kon dañu ne kon ñu mu jaddid la ba loolu gannaaw nit la koo xam ne suñu daf koo wóoyee destiné bu kawe war na koo yem yéen bu rëy yéen bi gën a diis la ko waaye yéen ndax fàtte na loo xam ne suñu xamal na ko ne ko julli mënu koo maye woor mënu koo maye sikkar mënu koo maye xalwa mënu koo maye li koy maye moo di da ngay def sa ne ku bokkoon ca saaba ya doo raw kenn doo nawloo kenn ku dul ñooñu te itam duñ la natt natt wàllu natt na lañ lay nattu dama la suñu borom daal di sant seytaane mu daal di def ci xoli nasaraan yi wóolee di ko ko ak ragal ko defe ne dana jihaar ba tax ñu dal ci koom daanu ci génn si léegi insha allah bu ngeen seetee gisaw sakkoor da ngeen gis tumuranke bu lislaam tumuranke woon ci jamono yooyu muy ñëwee mu saaka ci loolu sa kurbu wax na beneen lislaam bi jooy yit kat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel na làmbaay kenn amatul xas bi lu wëcc laahi kaa ngi sóori far bi jaanillaahi wax na beneen sëriñ si ànd ak cadde yi ñii di waañaan ñii daal li nga xam ne noonu la jamono bi melon bi muy ñëw nga xam ne aajo woon nañ ko mu jaddit maanaam aajo buñ ko seetee ak matam magam di mu leer ci zahir ak batin ñu gis ci moom ngëm goo xam ne néew na ku ko am dafa mel ne gëmul malaayika ragalul dara xamamul dara itam saar bi ko sabruka faaqa sabran naasi xatta samawta bihi ila ala al maqami sa muñ ji kawe na muñu doom aadama yi ba nga àgg ci maqam ba gën a kawe ngir muñ xaalu ndax am na wala ñàkk na xamoo ku ko xabale ku koy neexal li ngërëmal yàlla dong nekk na jublu la mu nekkul dong la woon gannaaw bu ko àdduna wanee kanam ak bu ko wanee gannaaw la yemale nee na aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zala anni qablu wa ba'dahu anni adbarat walam an illaha li kawniha daara walam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa atqa manni àdduna jublu woon ne bu njëkk ma jaay ko suñu borom musulmi ci jëng bi àdduna jëng képp koo xam ne ci jot na ngir jaamu yàlla yeexal bi ñuy yeexal tab dox gannaaw loolu adduna war a sama gannaaw ndax dafa ne damaa walbatiku jëm si ci moom ma bañ a walbatiku ndax xam ne këru lëndëm la ñu dellu si waat walbatiku jublu jublee si ci man man ma jublu yàlla rek yàlla daal di may may nag xéewal gu des ba faw te dootu si jëm suñu borom daal di dogal nag ci kaw loolu mu ñaan ñooñu li taxaw ñu ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini dafa ma toone jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ba mu àggaloon mu laaj suñu borom mu wan ko kumpa mu wan ko yoolu jaamu yàlla yi mu gis yool ñu ci gën a xàmme mu di yoolu yoolu ahlu badri na yonente bi sallallahu alayhi mu ne ma waaye lii suñu borom nan mën a def pour am ko mu ne ko lii de amul benn jaamu yàlla bu la ko mën a may ndax wéene jeex na ba noppi tëj nañ bunt def ba nga xam ne naagu na ci ba yaakaar ne dootu ko am suñu borom ne ko danaa ko jaay de waaye waaye nag ku ko mas a waxaale duñ la waxee njëgën nag wan nga ko gannaaw ñu la mu laaj ndax moom sañ naa xam njëg bi ñu wax dañ ko ko xamalee ñu daal dina ngeen a jënd ni ko bi si keroog la tàggoo ci nelaw keroog la tàggoo nooflaay keroog it lalaal di yëpp itam ko ci ëkk lu toll suuratu laawaani mi ataan yoo xam suñu wasamaanee ne ñaari téeméeri nattu ak juróom-ñett ko ko ko musul ne ah musul ne lii lu ko waral xelam musul a dem ci lu ko musal wala dara ndax suñu borom xamaloon na ko ne ko bis booy dox ba geesu sa gannaaw lu la mayoon dinaa ko nangu bis ci lal nelaw la ko nangu bis ci di waxtaan waxtaanu adduna lu ma mayoon ko nangu bis boo xamee ne dal na la bëgg uh lu la mayoon dinaa ko nangu bis boo delloo gannaaw ci li la doon def wala nga wàññi dara ngir tawat wala ngir sonn wala ngir xiif wala nga mar wala nga jàmbat dara lu la mayoon dinaa ko nangu xelam dal di dem ci yaxya ibnu zakaria mi nga xam yonent bu ñu jamono yi nga nañ ko mu di dem dal di ni ko ni ko sa yow yonent bi loo sant rek loo digal loola topp sa ndigal soo nga ne garab gi xaral mu xar nga dugg ci wet nga ne ko neel kepp mu kepp bu ko defee duñ la gis moo gën a noppale mu ne wax nga dëgg de waaye xamul ne iblis la mu ne garab gi xaral waay garab gu rëy garab gi xar mu dugg ci garab des mu ne garab gi neel kepp garab gi ne kepp jàpp bi ñuy dugg nag seetaani jàpp na ci laf ndum mu wét ba garab gi ne kepp moo ci laf ndum ne làkk di gaa ñu daw bëgg ko wax ne eh ñu ne mu ngi si laf ndum maa ngi nii ñu dellu ci kër ga daldi fab ci dee dale ko sa bopp garab ga di ko si di ko si ba xar bopp bi bi muy suyee day xar xol bi muy bëgg a wonk suñu borom dal jibril ne ko boo demee ne ko bu ne uuf rek ma far tëram ci diwaanu yonent yi sëñ Tuubaa xolam dal dal di lim lépp loo xam ne suñu borom teg na ko ko suñu borom dal di sotti mboolem luy balaay àdduna yëpp ci ak yu tiis ak métit loolu moo dëggal xadis bi sallallahu alayhi wa ne ashaddu naasi balaa an al anbiyaa fa lam suma fa lam tal ci gën a tar balaa ci gën a ñi gën a tar musiba ci àdduna mooy yonent seen gannaaw ñi ko topp maanaam képp ku gën a xaj ci yàlla ci yàlla rek moo gën a siis ñu ko lu mu dajal ci àdduna ñooñu ko seytaane eh, ruuxalee ak nasaraani génne bi amatuñu jàmm génne bi ñu leen di génne dóor yi ñu leen di dóor dàq amuñu jàmm bu tund lu ne ñu am leen ko lépp ci muñ rek yëmul ci muñ sant rek def ci ab dëkk ngir xam ne yàlla fàttali ko ndax mi ngi koy tegu tiis ñu faata nee na ya di aay génn ya di aay tool ba taalib ba dal di fay fa tuuba ak mbàkke suy tee ko wuteeg booba mu nekk jëmm boo xam ci naqar ak ci ak ci rek lay ci ñu dagg xam loolu daal di nangu yoonu géej googu ngir na ma liggéeyal yonent bi daal wax ni moom ci boppam nekk li ma ne bu dama leen ci géej gi dana alako alako ñu ne ko loolu ko waral mu ne booba dama mel ni boo xam ne dafa am ci réew kenn amul pepp dugub boo lekk am nit koo xam dafa am ay sàqam mooy gërëm yooyu ut ko bu ko seen defe ne fees na benn dugub adduna bépp riiroo ak seen i saako ak seen i paan ak seen i woote bi ci taat ba di waxtu ubbi xam ne rek daanu am lu ñu lekk parce que dara nekku ci na nag te mën naa liggéey da toxal ndax doomu aadama yi yàlla xamal na leen sama diggante moom ba noppi ñu dama def dër dër dër dër bu jëkki-jëkki daal di sàcc génn réer nekku ci lu dul jaamu yàlla génnan yooyu buñ ko doon waxtaane dama waatu waaye danaa ko foofu man a wax am nañ bari yoo xam ne dañ koy dagg ay na yeneen conférence moo ko mën a génne waaye ku xëram la te amul woon yaatak na ko defee loolu moo waral ba suñu borom dogalee mu xam ne ci la war a liggéeyee mu daal di am mbëg daañu nekk li ne am na bis boo xam ne jamono yooyu ji atteel buur bi ñu wax la joor da nga ne dañoo daganaloon jaam yi nga xam ne ñoom la ceddo yi amee xam ne jaam yooyu du woon lu dul li ñu ëpp doole rek jàpp leen l'islam reconnaître leen kon comme jaam te ñu si nag xawoon ragal lab joor wala wut lu ko neex ba daganal ko da ca kàddoom ci dee wane ne jaam yooyu nga xam ne fasaka daw doy te kun sëy deful asaka ajiwul màkk ndax du alal ju lew keroog bi nga xamee ne tab joor woote na ngir boole ko benn jotaay moo xaaj yi wax loolu le te muy koo xam ne liggéeyal boromam ak ndigalal boromam moo ko gën a far lépp dañu déggee woote ba itam mu la sàggane liggéeyal boromam mbokk yi nga xam ne daf ko daan defal yàlla dara mun la tax mu bàyyi ko te booba naw la mu nekk sa balal tax mu xaw a tardé du di ko ba jig ñu ñëw itam ak suul yi dul dagg jàpp julli ñaari rakka ñu tàllal ay loxoom di ñaan koo xam ne du tudd turam noonu jóge ca mbooloo ma di ko baas ci ne ko yooyu waay sa teg gi nii des na ndax te suñu fa ñu tël nii wala booba léegi ñu taxaw dina nëpp defuloo dara lu dul toog ba mu neex la nga ñëw dikk ba julli ne ne képp di jàpp ñu defe ne boo àggalee ne ngay julli dellu taalu sala yi teew sax li ngay def man seetaane la ñuy niru ndax moom xamuñu ne ko bi nga xamee ne kona kii tubaab yi xam ba war naa na ku jël ci mu ne ko keroog bis boo dee mu wangoo am na fekk lu ma suñu borom defaloon naqari a naqari sama xol suñu def dama sa jugee di ko wut di ko wut amaat naa ko fi mu ne du ma delluwaat mukk di fa sàkk diw mu dama wang wala ma fa sàkk ku mel ni moom mu dama wang wala mu may def lu mel ni wang mu dama nakar ci borom di ko nuyu bala may dem damay nit ba àgg ci nelaw woo xam ne mbindeef mu ñu bind mënatuma def lu ma naqari mu soog a dem liggéey bi nga xam ne moom la liggéey ci géej gi bu ñu li nettali naqari ak tiis yi ko ay conférence yu bari la di doon di dem nekkoon ci xam la ne rek ku suñu doom teg ci béréb la ndax mais ba mu demee ndar parce azmi la ko suñu borom a wax ne nga nit ñu ulul azmi maanaam yonent yi gën a amul dégg yi ëpp volonté ci yonent yi tamit juróom ñooñu taala wa sallam ci alquran noonu la ko suñu wax parce que azmi voilà ku ne farax bi ko sabran fa alim xadabin min allahi wa lahum ci wedd ko ba noppi waaye kat waxuñu koo wax la mu wax xolam ma nga sax ci mbir gën gëneen dafa wax loolu rek ngir bu gëmut ku nekk xam kon dañ tuba am na béréb yu bari yoo xam ne toll na fa mënoon naa wax ni ko tàggale tubaab bi te dara du ca dikk waaye dafay koo xam ne xasanaatu labraari sayiatul maqrabin lii julit ñu baax ñu sañ sañ ko na yu metti yoo xam ne mënu lim bokk na ci xam ne na ndax jaamu yàlla bu mu doon jaamu yàlla mbooloo war koo def te moom gisul kenn lu dul boppam muy jullit éet yoo xam ne keroog raf laxaal muminuuna law way tënke ko aaya jooju def ko muy muurum koor ndax amul lu duub amul dara lu mu def muurum koor ba nga xamee ne toog na jullit ndax dana am benn jullit ci réew mi wala ci dëkk bi bu ñëw fekk si ko ci pénc mi ndax ñu ànd julli gisul kenn ba mu xam ne kenn du ñëw dañu tab nalee tabbar ñaari xale yu jigéen yoo xam ne nekk gu ñu jànk yu mag mu suñoo gis ñu def noonu ñu dikk ba jub ko taxaw bu ko xool bu kabare ñu fàqtaay ba daanu ci ndax tuñu la muy def rek ngir ne foofu tumuranke gu mu ñëpp waaye loolu yëpp teewul mu dal di delluwaat ci borom ndax xamne suñu borom du ko baal dara dara dara ndax xamne mag la mo xamne ne li mu def rek dañ nan ko yow man nga yaaka tay li xal yow ko wara def mën a waxante ak ñoom di dégg seen wax ñoom ñu dégg waxam bu topé pratique bobu da nga dem ba dootu aajoo wéet ci bi rek nit gu mel noonu bu tuddee yàlla tuuti fàtte adduna rek dal di jannoog lawx mahfuz ak li nga xam ne ci la suñu borom bind lépp luy ami ba saa taxaw dana dem ba fu mu toll du aajo woo sax wéet du aajo woo gëmm du aajo woo tudd yàlla day dal di mën a liir lawx mahfuz gis nañu ne Seydina Ousmane radiyallahu anha benn délégation bu jóge yaman mas ñëw ñëw jëm si ci moom bi ñuy dugg ci néeg bi di ko fekk di dugg benn waay dugg mu dal ne doxul ahadukum wa fi aynihi asara zina ولولا ان الاسلام لم يبين عقوبه لذلك لا عذبتك ولكن تب الى الله ان سين كوي دغ دي جيختي نيالو نيك سي سيدنا عثمان بسيران بو فور بوبو ني خامي نون خرام دي مانا جيسه يبول سي خامي واجي دافنا بكار لا امنا جايا لي خامي دا خامي بو ندي سوتري دا خامي ني دافنا بكار بو يوغ واجي خام بان سير سي ولا بان خاتو لا sidna ousmane basiram bi fëll na bakkaar ba ba gis cër ba xam itam ne cër ba ne cër ba moye fekk waa ji dafa jàll woon ak benn jigéen ci yoon wi jigéen ji rafet mu settantal ko ba settantal ko sidna ousmane dal di gis bakkaar bi gis meloom gis bët bi ni mu ci tafoo mu dal di ko wax ni ne ko xanaa yow ndax wax yi dafay am boog gannaaw bi yonente bi nekkati ndax lii ne dafa mel ne wax yi mu ne déedéet wala ko ne phrase ci moomin wa burhan loolu la lu tasawuf de phrase naka noonu sidna abubakar siddiq bi nga xam ne mi ngi mi ngi jóge ci àdduna bi muy gaañu mu woo sayyidatina Aisha radiyallahu anha di ko won ni mu am ci alal pour nañ ko war a donne mu ne ko yow benn mbokk bu jigéen nga am ak ñaari mbokk ñu góor mu ne ko déedéet man ñaari mbokk ñu góor laa ko ah kay sa yaay ji am na doom ji nekk ci biiram te jigéen la Seydina Omar keroog bu muy wax te min dara bu muy xutba naan yaa saariyatu ku jabale yaakaaree ku jabale yaakaaree ku jabale bi ñu sëlmalee ba jéem si ibna ko waaw waaw li nga doon wax lan la mu ah, ko déggee mu ne ko dégg naa ko mu ne daal ma mu ne si da nga ko digal te diggante bi mat doxu weer léegi doomu aadama bi nag pour mu mën a def dawaaram bi ko yàlla sarte te mooy ruuxam gi mu jëleen te mu set wecc ba mu dellu ëllëg fa boromam mu set mel na meloon ba mu mën a dugg àjjana ah moom a def bi dama waxoon ne dafa mel ne dañoo boole ci moom lépp lu yàlla lu baax ak lu bon ba nga xam ne doomu aadama melaw jaa àll ci biir doomu aadama melaw mbaam foofa ci biir doomu aadama dafa mel ne doomu aadama ji mbaam foofa ci ak xaj ak seytaane ak malaayika su fekkee ne góorgóorlu na ba rey xaj bi rey seytaane si wala mu dàq ko rey mbaam foof mi rey te ñu def si day daal di nekk malaayika masalan dootu amati bakkaar te bu yemal xiyaamee day texe texe boo xam ne dana du yem képp ci moom danañ waxtaane bi loolu bu ndee ba ci kanam tuuti lépp dañu bi tegu ci kaw mu jaahadatu nafsi maanaam jihaadu nafsi وقرنا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونحن علمناهم من لدنا علما وهم عند العلم لدنيا من لا اهل التصوف ترى لكم سين الوال وان لو قد وخمنا دخبر اتاب وان لن يدخل وان دم الوالا تبدأ ونقل الجار لا وبرع النقل بتخنا وان لن تجيسي دنكو ترى لنا كي تكيسي من يسنت بعد رحمة طريقه معاشرة جاءت لازمها لا بد من هذا أرباب الإرادات فمقتب الموجود نبلي سكي أنا أم تجد بك لم أقعد وهو ما يقولون إلى تحرير الممويل تخدم منها دليل أنا أم تكل لذلك تكل مولا منك الشيخ الذي فتوحات موين سريب وقمنا جامنا على بأم تكل وزاد قوم أن يبل لذلك نبل بولا من وهو التقام ويرد الله بيد بكي

ñetti juróom ana ci def yan la mu ne منها العكاز بعجز والحزام لدى أهل طريقة الفجع حقيقته كنت كده يار يات من سكندكو يلا موي لك والحزام أكو لحقاي منام سنتير دا تكو نحو من الدخ بقنا في وهاي قبل أقباتي مثال imam xasali dafa ne woon dafa mel nekk picc yi dañoo masa toog ba mu yàgg ñu waxtaan ne ñun de war nanoo am buur te kon am nañu buur nag war nanoo xam buur boobale ñu seetee ba xam ne buur bi am na fu mu nekk ñun ñëpp ñu dajaloo ne nañ seeti suñu buur waay am nañu waay bu leen sonal seen bopp ban amee ba léegi yàgg nag te nee ñuy dund dara jot ñu kon ñàkk gooy xam googu nu ñàkk xam buur bi wàññi ñu dara nañ toog bu leen sonal seen bopp ñenn ñu neexataay ñun daanu dem ñeen da ngeen amul benn ittee te seen bakkan dafa tuut yéen ngi yemale seen bopp ci lekk naan dong ñun nag daan xam buur bi xam nan demee dégg nga ba mën a askanante moom am ci moom ak cër ba ñu dajaloo daal di jógee sañ nekkoon yoon yi ñu jaar metti béréb bu sedd ngi si yoo xam ne ñii dëkkoon ci réew yi tàng ba ñu fa tolloo dañoo dee béréb bu tàng si yoo xam ne ñu jógee fu sedd ba ñu fa tolloo dañoo dee ñenn bi ñenn ñu mar yi ba ñu def kuréel bu néew bu àgg kuréel boobu ba ñu àggee ñu ñoo yëglu ba ñu leen nuyoolee buur ba ne ko ay jaamale yu ñu mu ne waaye dama laajal ma jaam ñu ñu ñen dañu xam ne seen bopp ñëwee nañu accès bu ñu accès mu la bi laaj leen ñu leen waaw yéen ana lu leen indi ñu de dañoo déggoon ne am nañu buur rek dañu ba xam ne yow laaj fexe ba xam sa nga nekk lu ñëw ñu ne sonal ah, ngeen seen bopp lool nag ndax man bu ngeen ñëwee maay buur bu ngeen ñëwee maay buur maanaam daal man doodu naa wala si ma dara waaye nag gannaaw ñun yëpp ngeen war a xam ngeen ma war a xam ba ñëw danaa leen ba képp ku andi woon ak yéen dana réccu lu mu doon dese danaa leen teral ba du ngeen delloo bu ngeen bëggatee dellu fu ngeen dikkoon dafa leen ci xeeti teranga ak xeeti xéewal ak xeeti may ak li seen xel daj ak li seen xol xel dajul yéen nag ñun dootuñu dellu fii la ñuy toog dëkk fi ñoo leen déedéet ndax yéen picc leen te man duma picc dañu war a dellu ci picc yéen ñu ne ko waaw léegi nag liñ la bëgg a laaj moo di waaw gaa ñi nga xam ne ban leen ne nañ leen dem danoo bañ ñoom ñii seen xalaat lii seen pexe mais xayaata ولا وراد الخروج لا عدوا له عدة ولكن كرهوا الله أن جاءتهم فثبتهم وقيل قودوا مع القائدين بكون يلا بول من من انت بقم بن من يو كن دان يو كن دان يو كن دان يو خرو خرو بو خمي تبون انت تخمن دخ عندك من بني من بول من نقول انه عندك من كبير في الأكل من هي هذا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله كن يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لا كيف بو خمي بين الناس من نجم في الله أجرا تني gannaaw gi dogal bi sa yool na mu waroon a mate boo agsi woon yàlla dana la ko mos ndax minute mu ne ab la ko mën amalihi ñooñu nag ñooy awliya ullah yàlla yéen wàllu yàlla yi nga xam ne dañu dikkee ci àdduna seeni ruux dafa yëg ne am nañu borom borom boo xam ne mënuñoo def dara mënuñoo dem mënuñoo dund mënatuñoo am benn xaraar te yëguñu ko demuñu ba mu yëg leen amuñu dara lu bokk ci ñoom loo xam ne moo leen di defal ñu mel nam ma ko nam ma koo xam ne kon nit koo xam ne dafa dëkk dëkk mu fa jóge mukk lépp lu mu bëgg mu am ko fa ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci dëkk boo xam ne xamu fa kenn mu tuuraan fa am fa naqar na muy nam ne dëkk boobu mu jóge woon seen wax yi nam ne ko dellu dellu seen borom mooy gaa ñi nga xam ne dañuy ba àgg ci yàlla daanu dem ba àgg ba misaal loolu nam ne nag yoon dafa sori ndax ay aqabaat ngay dog bala ngay àgg yàlla ay aqabaat ngay dog aqabaat yi min min hajul aadimiya indi na ko mooy téere bi nga xam ne te Amadou Bamba ci ndawam mooy téere bi ñu njëkk a tàmbali di yër ci tasawuf gannaaw yàlla moo am la ñu ne man ne moo initié te Amadou Bamba ci tasawuf soobu ci yoonu tasawuf nag mu leen tuddee suluuk suluuk nag aqabaat yooyu ma wax ne ci état bi bu ñu seetee ne nit ki day xeex bakkanam lan mooy bakkan bakkan du ruu bi nga xam ne dañ naan bii ñàkk na bakkanam maanaam dee na nga xam ne mooy dund gi déedéet bakkan mooy melo nga melowoo wute ko bàyyi ma wute ko malaayika sa sa sa mbóot moomu moom la ñu tudd nga xam ne moo lay xiir ci lu lay lor nga xam ne mooy sa bànneex moom lañ tuddee dégg nga sirru boobu moom la ñuy wax bakkan léeg-léeg waaye fii liñ fi namm moo xoolu nit ki loolu moo tax ñu tudd ne bakkan dana jaar ci juróom-ñaari étape étape bu njëkk bi nga xam ne ci lay tàmbalee moom lañ tuddee an nafsul ammaaratu bi suu'i mooy nit ñi rek nga xam ne mësa gunoo soobu ci yoonu tasawuf bàyyee gunoo àdduna dañoo mel ni nit ñi daj àdduna rek yéen neex la nga xam bu ko bu nga xamee ne bii neex na ci ñun wala am na njëriñ ci ñun rek ñu wuti ko loolu nag dana tax bakkan bi daf ñuy xiir ci loo xam ne lu ñuy lor la wala lu ñuy rusloo ëllëg loolu moo tax ñu tuddee ko an nafsul ammaaratu bi suu'i bakkan bi digleekoon lu bon mooy étape bu njëkk bi bakkan boobu mu tax mu tax kaw seen xam nañu biiram ak bitteem baatinam ak zaahiram na muy loree ak na muy jëriñe gis nañu sax ndaw na maanaam couleuram ñooñu dafa wert bu fa waa ji jaamoo yàlla ba jóge ci étape boobu ak nafsul lawaamatu la ciy teg mooy bakkan bi koy yedd li si biñ sóoboo léegi ci yoonu yàlla bu defee loo xam ne lii dafa jàdd te waru koo bakkan bi daf koy yedd ndax léegi nekkatul kuy digle lu bon daf naan ko kat lii nga def waruloo koo def mooy ak nafsul lawaamatu couleuram dafa jaune nafsul mulhamatu ca topp nafsul mulhamatu mooy bakkan bi nga xam ne doomu aadama bi tàmmali na léegi di jot leer yàlla di dugg ci xolam nelawa dafa weex nafsul mutma inatoo ca topp mooy bakkan bi nga xam ne borom dootu def benn effort ci ngir mu taxaw a jaamu yàlla buy jaamu yàlla dafa yomb ci moom mi nga xam ne noonu la lekk ak naan yomb ci moom nga xam ne amatul xeex bu muy xeex ak bakkanam wala nag bu mu koy jéem a nag dafa amatul musiba mu ko mën a dal ba mu ñàkk amatul lu mu mën a ñàkk itam baax ba tax mu génn ci tam wala dara kooku leer maanaam leer boo xam ne bii dafa wert moom la naftu raadiyata sa bopp mooy bakkan bi gërëm boromam meloom dafa ñuul naftul mardiyata sa bopp mooy bakkan bi yàlla gërëm naftul kaamilata sa bopp mooy bakkan bi nga xam mooy borom ci mat àgg nga xam ne léegi pour mu xam soxlaatu lu muy def tafakkur maanaam soxlaatu lu muy def méditation ndax imam alxasaali noonu mu waxee ne bakkan su matee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour xam-xam ñëw ci moom dootu aajowoo sàkk dootu aajowoo médité dootu aajowoo wéet dootu aajowoo dara ndax ñoo waxoon ne ruuxu doomu aadama dafa mel ne seetu lawxul mahfuz maanaam la tablette gardée dafa mel ne seetu ñaari seetu suñu leen jàkkaar loolee maanaam image yi nekk ci bii day rafetlu ci bii waa ji nga xam ne am nafsul kaamilatu la amee fu mu toll seetam boobu dara du ko muur day jàkkaarloo seet lawsul mahfuz di xam li nga xam ne mu ngi war a ñëw bu ñu tàmbalee nag ñoom suuf yoon yooyu bëgg a jëddi juróom-ñaari étape yooyu suñuy jaar yoonu judd la bu ñu seetee ci wetu xam-xam dañ naan ñetti étape rek la ilmun yaqin aynun yaqin xaqun yaqin ñu demee ci yàlla ilmun yaqin mooy xam-xam bu leer boo xam ne dañ la ko xamal rek mel ne bu nit ñëwoon tey misaal la safara ci mboolem ay meloom mel dafa xonq day lekk lépp lu wow dafa tàng day dàqu lëndëm ba nga xam ni nga laaj safara nga nga mën ko wax waaye mëtu ko gis kooku mooy ilmun yaqin boo si jógee xaqul yaqin nga ciy teg xaqul yaqin mooy ni nga demee ci safara waax nga ba tiim taal bi muy tàkk nga teg ci sa loxo mu lakk la nga gis matt mi koy jafal gis mu tàkk tàkk na xonk gis saxaar si nga xam ne léegi liñ la ci laaj xam na ko moo gën a wóor borom xam-xam bu njëkk ba ndax borom xam-xam bu njëkk ba xam ne ndax liñ ko ci laaj xam na ko waaye gisu ci dara loolu moo tax ñu ne al aalimu duuna ma yaqulu wal aarifu fawqa ma yaqulu alim mooy ki nga xam ne dafa jàng téere yi ba xam kooku aggul ca na mu waxe fa muy waxe aggu fa moom ci boppam daf koo xam rek dañ ko koo xamal mu xam ko al aarif nag foo xamaa yaqul aarif moom li mu xam lépp lamiñam ak lang bi muy waxee mënu koo mal mu mën la ko wax ba nga mel ba nga xamee ko ni mu ko xamee moo tax ñu ne al aarif moom kawe na fa muy waxee borom xaqul borom alimul yaqin mooy ki nga xam ne noonu la demee safara wala ci bu dee suukar dem na ba mos ko ba sàqani ko wanaas ko xam ne na mel lépp ñetteelu étape bi ñëw mooy xaqul yaqin xaqul yaqin moo passé ilmul yaqin passé aynul yaqin kooku mooy kan mooy ki xam ne dañ koo sànni ci biir sédd bi muy ba daañu safara féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor féete ko càmmoñ féete ko wet bu nekk ba xamatul dara ko laajan yaay kan mu ne maay safara foo jógee mu ne ci safara foo jëm mu ne ci safara safara rek la kooku nga ne noonu la demee ci loolu yàlla ba lap ci li ne que si suuf ci géej gi ba lap ba gisatu lu dul ndox ndox ko féete wet bu nekk noonu حق اليقين لا يبرم حق اليقين أنك تبقى كيف قال ما يكفي خمنا يجني في اللحم مو بمن نجني بلا خمنا نك في اللحم مو نك في سخلة ملة كوك ما يبرم تمثيل ولا سنة تلزم دعين في لحتاني توري بندني سيا أحمد بام التوحيد تسوي كل yoonu ñu xexe seen bakkan bu ko contrarié ci lépp lu neex bakkan ñu xañ ko lépp lu tiis bakkan ñu teg ko ba amatuñu melaw doomu aadama lu dul amee melaw malaayika ca la ñuy kawee malaayika yi ba féete leen kaw am na ci ñoo xam ne ci pratique boobu ci gaañu baax ñu dem nañu ba àgg ci toog weer day lekk lu dul benn doomu ñebbe waaye loolu yëpp dafa laaj nag teqantal ndax benn mi res di jëpp ci boppam ne naa def loolu ba ci àgg nga alku wala nga dof wala seytaane nax la ndax mu ak xol yi dem nañ ba xam ne xiif dana waral ndof xiif day indi li nga xam ne moom la ñuy tuddee masalan daal ay wasaay loolu daal mooy hallucination nga defe ne dëgg la te du dëgg ñi nga xam ne nag dañ cee spécialisé xam nañu ruuxu doomu aadama xam na xiif bi demee ci moom xam xalwa nan lañ koy defee bokk na ci sart yi ñu ci boole nga am sëriñ bi nga xam ne jaar na ci ba xam na mu demee lépp lu mu la tere nga bàyyi ko lu mu la digal nga def ko moo tax nga mucc ci yooyu yëpp su ngay tàmbalee ñu ko tuddee ak zawq max mais daal leeru yàlla bi sa continuer suukar la dañ naan pomp nañ ci tegal la ci sa catam lamiñ ba nga wanaase ko kooku mooy su ngay tàmbalee nag max li nga xam ne boo ko mosee adduna bi dootu la féete fenn dootu dara dootu la jaral dara mooy seen njaal doonu tàmbali dox boo bu amee zawq boo ko muraqaba mooy sa tegu muraqaba mooy lan fuglu bi ngay fuglu yàlla mel ne loo xam ne dañ ne day génn fii te waxtu yu génnee te gisuloo ko kat da ngay dee ni nga xam ne noonu ngay dafay jàpp sa attention bépp say nopp say bët sa lépp noonu ko sugle noonu nga sugle yàlla loolu mooy xam bi nga xam ne yàlla ma xol bi xam na ko ne yàlla ngi jàndoog moom di ko yër ci waxtu wu nekk noonu ko xol bi xamee ba di ko suglu loolu mooy muraqaba su jógee ci muraqaba mushahada lañ ciy teg mushahada nag ci boppam ñaari xaaj la am na ci mushahada ñoo xam ne dem nañ ba xam ne seen roo mooy jàkkaarloog màggu yàlla ji di naan ci leeru yàlla yi fu ñu toll waaye seen jëmm day jàkkaarloog màggu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di naan ci ay reeram fu ñu toll mooy <coughs> ku ma laa ñu ci def ci boo xamee ne ñu ngi def muraqaba suñu borom rek azza wa jalla dootuñu gis yëpp mbindeef dootuñu gis mbindeef bu ñu demee ci musaahada boobu ci la ñuy dem ba àgg ci fanaa al fanaa bi ci doomu aadama di tolloo bu mosee suukar dootu sax ci moom bu mosee xorom dootu sax ci moom boo ko dompee dootu ko yëpp mën na koo rey ba ba muy dee day dee rek waaye du xam ni lay def gis nañ ne Abdoulaye ibn Zubair fii yëngu julli yëngu bu daan julli tax ñu ne woon day ngistal ba nit ma sa baxal ba mu tàng sotti ko ko ba mu jullee ba sa mën yëngu ko am na ci aarifoon yi Bilaal koo xam ne tànk mas na ngal ba yàqu ñu war koo dagg bu ñu koy waree dagg ba ba ku nekk xam ne li ñuy wax tax xam nañ ni booba kooku ñuy wax pasteur ak affaire génération spontanée booba nit ñi ci xam-xam ñu ca digg ba la ñu toll xamuñu loolu nañu dagg tànk booba xam nañ ne buñ masaan opéré sax téeméer juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett yëpp wala juróom-ñett fukki daañu dee ndax booba xamuñu ngir nga air bi li mu amee ci gracile waa ji doomam ne bu ma aris bi dal boobu góor gi day bu ngeen ko yërëmee da ngeen di bàyyi ba muy julli ngeen dagg tànk bi ndax buy julli dootu yëg dara dara dara dara ci àdduna ndax ragal yàlla yéen ñii fanaaw fanaaw bu ñu ko jugee fanaawul fanaaw yi wax jeex ba sa jeex kooku nga jeexoon ci yàlla xamatoo ko ndax jeex ci. seet nag yaa ngi jóge ci maqaama di dem ci maqaama seet yaa ngi yokku seet yaa ngi am xaal di yëpp jamono boo xam ne bii dootoo yëpp dara am jamono boo xam ne dañuy dellu si mel na nit ñi yaa ngi ci li ñuy wax tëlween tëlween àggagoo ci tamtiin ci àgg ci tamtiin mais su ma waxoon sànq mais dafa yàgg ci ndox mi ba mel ne jëm ba nga xam ne ndox mi dootu yëpp moom dootu yëgal ndox mi dara bu dee safara yëgalatul safara dara borom tamkiin du am xaal boo déggee ñu naan wàllu sàngam dafa toll ci xaal bi ñuy wax nangam booba ci tamkiin la nekk maanaam àggagul ci tamkiin tamkiin mooy ñuul bërëb ba xafiratul qut ba nga xam ne léegi amatul dara luy bees ci yow amatul luy yëpp loo masul woon a yëpp yëgatoo nga nekk ca bañ caa nekk moo yem ci dara mënu koo tiital dara mënu koo nekk am na yemale képp képp képp képp ndax moom fiir na lépp lu dul yàlla mu ngi ci kaw lépp lu dul yàlla yàlla ba mu ko féete kaw féete ni kaw leneen li mu doon bu jógee ci tamkiin al baqaa lay nekk baqaa moo tax dañu ne wàll yi day yéeg yeneen day wàcc yeneen xam ngeen ne ni mu gën a niroo nit ñi ni mu gën a niroo doomu aadama pour doomu aadama yi mën koo roy foofu la gën a mate xam ngeen ne yan teel a Isa am na yu bari alayhi salaatu wasalaam ñu mu ko ndax ñu ñu ko war a sëy ndax daanaka mën nañ ne genn wàllam nit la genn wàllam malaayika daañu di wax ne yaayam ni ko sayyidatuna Mariama alayhi salaam bi nga xamee ne ko baayam dafa ne woon yiisar na ne doomam ji bu juddoo ci yàlla rek la koy féetale bëggul benn service am service am yëpp yàlla bu ñu juddoo fekk dafa jàppoon ne góor lay doon mu juddu jigéen mu ne ba tey la ma mébétoon danaa ko àggale su mborom ne ko nangu na ko ñu féetale ko ca jàkk ne maanaam bérébu jaamukaay yàlla ba mu di ko bale di raxas di def li korom di suur di cuuraay di jaamu yàlla rek waxtu woo xam ne ne yóbbalu jeex na ñu fab karaafam ca gannaaw kër ga dem ca marma tànk ca dellu si continuer di jaamu yàlla ba mu jeex am na ku ñuy wax Yusufa Najaar mooy le chef le charpentier li muy wax moom itam moom lañ ko mayoon sax mu jëm ma fan lañ ko ko may ne seen ndox jeex na ñoo daan ànd am benn bis boo xam ne ndox Mariam jeex na jeunesse na jaar maanaam le serpent ci ndoxam jeexul te gis na Mariam alayhi salaam dal di gën di duy ndox ci marma ba mu demee ba yëkkati robe bi ndax bëgg a xuus ci ndox mi ba àgg fa mu sellee pour mu tànq dal di gis benn xale bu góor bu rafet ba doy waar sol yëre yu rafet nga xam ne benn jeexitu coono wala dox wala ñaq ñëpp ci moom mu dal di jàpp ko ne seytaan la wala waa ji dënn mu ne inni aawusu bi rahmaan min in kunta taqiyan maa ngi musli ci suñu borom ci yow maanaam yow ñu nekk ba lay yéeg yow fii nga dem ne dikkal yéeg kooku dal ne ko xamal ko ne ko man kat bi ma doon aadama ndawal yàlla lu mu yónni laa daf ma jox roo maanaam mbéet mu sell ko mooy isa ma war la ko yëg wala doom laa lay indil gi sell mu ne ko man na may amee doom te musuma diggaale góor dara mu ne ko yàlla mi nga xam ne day moo la sàkk sàkk na loolu umb tëlewu ko lottu ci ñuy waxante jooju ñuy waxante mayama te amee mbiru góor ngirut na mariama alayhi salaam xelam dem ci mbiru góor ak jigéen ci jamono boobu la dal di ëf roox yonte la isa alayhi salaam moo dem ci jibéy sayyidat na mariama alayhi salaam loolu su fekkoon dafa action rek ni ko ko ëf isa bu juddoo maanaam nekk mbirum dama nekk lu transcent lu mel ni malaayka nit ñi duñ ko mën a jege kenn du mën a diggaale moom dara wax man du ko roy ni nga xam ne noonu la malaayka mel waaye noonu mu defee doomu aadama moom sayidina jibril tooyaayu jëniñam booleeg noonu sayidatna mariama xelam dama ci loolu tooyaayam boobu moo ko rax ba mu nekk doomu aadama waaye noonu nekk boobu mu nekk roox maanaam esprit xam ngeen esprit moom lu mu laal rek loola dal di dund loolu moo tax mu daan fekk ku dee mu laal ko mu dekki mu daan fekk ku juddu amul bët mu raay ko mu am bët loolu moo tax mu daan jàpp ban tabax ko ba mu mel ne picc mu ëf ko mu naaw xam nga ne ci loolu mu wax ne roo lu mu laal day dund nga jigéen jooju nga xam ne day am buur doom ji jub tey góor mu rey la mu dem ba ca àll ba jur doomam ji góor dal di dee suñu borom ci yërmandeem mu yebal malaaka moo xam ne bu daan ñëw dafay nàmpal bi ñaari baaraam yi doon ñu yem ci bii néew ci bii ba mu waaye malaaka moomu di Seydina Jibril fi mu daan taxaw ci suuf si fas yi daan taxaw gannaaw ruux la fas yi ruux suuf si dal di dund moo tax ba saa min la waaje tudd ba mu màggee mu dal di gis secret boobu suuf si bind si ndax li ko fara fa suuf si dina jibril laaloon mu dal di tibb ci suuf si bind si moo tax ba mu tëggee yëkku or wa daf ko soxal suuf sa ca biir yëkk wa di nañ di dox ndax di dund lépp lu xam naa lépp lu roo laal loola day dund mooy inni qabad qabdatan min azr min asri rasuli fa nabis biha wa kadalika sawalat li nafsi sayyidatuna maryama alayhi assalam kon ci li nga xam ne noonu laa waxe woon mbirum yonent ne day wàcc mooy na mu gën a mate rek mooy na mu gën a ñëw doomu aadama yi bañ sañal genn kéemaan lu dul wan doomu aadama yi ñu leen doomu aadama simple la lu ma def mën ngeen def lu ma mën mën ngeen ko pour ñu mën koo roy noonu lay gën a mate wala yu nekk day yéeg ndax moom bi muy judd indaalewul dara lu dul istiqdaat maanaam li mu wax disposition am na ay prédisposition yoo xam ne bu ñu moom la amal hmm, prédisposition yooyu mooy tax muy namm réew moom yi ne ca la roo fa li room ëpp kattan rooxu ñu ci def mooy disposition bu fekkee ne nag jaamu na yàlla dal di àgg te àgguwaay ba ni mu gën a àgg rek day gën a wute nit ñi loolu tax wax nañ ko waaye wala itam bu demee ba àgg ci baqaaw al baqaaw bi zaati dana jënd siwaat xëy na daan ko waxtaane bu ñu demee ci mbiru si Ahmad Bamba li nga xam ne na euh, doomu aadama bi maanaam waliyu bi nee ñu ñetti xaaj la benn wali bi nga xam ne teen la ak bi nga xam ne dex la ak bi nga xam ne géej la ban mooy teen bi mooy bi nga xam ne juddaaliwul wilaaya waaye dafay jàmbaar am xam-xam di jaamu yàlla di sonn ba am fatxu kooku mooy teen teen bi xam nañ ne faj na mar mën nañ cee togg mën cee root mën cee naan mu ne lépp lu ndox di jëriñ mën nañ ko cee am waaye nag teen dana golmi dana béy dana nekk dana dëj ki nga xam ne nag moom judduwaale na ak wilaaya te soobu leen tasawuf jaamu yàlla ba am yërmande yàlla mooy dex dex day ku nekk xam na ne kenn defu ko fa kenn defu ko noonu lañ ko fekkee te dara mënu koo taxal itam waaye nag am na yemukaay ki nga xam ne nag dafa judd wàllu wilaaya bi ba noppi jaar ci yoon woowu ba àggale ab doxam jihaadu naf seen jeex mu am ridwanullahi mooy géej géej day dara yàq ko dara mënu koo sobal dara mënu koo saltel dara mënu koo ci limal seen xamul mu yem naka noonu wali yooyu nekk ñett sëriñ si itam noonu waxoon naa ko ci benn conférence semaine culturelle bi am na sëriñ bi ñu naan assalikul majduub assaay ak bi ñu naan assalikul mujarrad wala al majduubul mujarrad wala al majduubul mutadaarik bi suluk assalikul mujarrad mooy di jiitu mooy ki nga xam ne dafa jàng ba am xam-xam bu mat xam yoonu tasawuf soobu ci te àggagul ci fatxu kooku mënu la àggale kenn ci yàlla mën na ñaan te xëy na mu nangu mën na tekkale itam mën na jàngale itam ndax sëriñ ñett ci sëriñ am سيرني جانغلا اك سيرني تربيا سيرني تقيا باش تي حكمة الشيخ احمد بامبا مثال في سيرني سيرني نتمنى كان كنت نفس بلي اي ساتم سيرني جانغلا خمغا نيوانا داي ام خم خم بمت تك بتلو في القران اك حديث الكتاب والسنه نا ام لم يقول الله روح من من واحد يدير كان بك سيك ساكا نا ام تم اك مال روح من من خمو من خمو كو خمو فقط من فقط ñaareelu sëñ bi ne tarbiya bi sëriñu tarbiya day am xam-xam boobu ba noppi te itam na xam nufoo si doomu aadama maanaam psychologie doomu aadama ba xam kenn ku nekk la yelloog moom ak nan la koy wammate jaarale ko si yoon yi war a jaar na xam itam rawxaaniyaat yi ci kaw ak yi ci suuf ba xam seen tasir maanaam seen influence ci doomu aadama ba xam ni mu koy dékkoo na xam itam jamono bi xam yàqu-yàqu yi fu muy jóge ak nan la koy saboot nan la koy aare ak nan la ko ci yee ba mu wattandiku ko bu yàqu-yàqu duggee ci ba nit nan lay saxee ba dindi ko te li muy tarqiya nag mooy bi gën a féete kaw mooy ki nga xam ne waxtu woo ko gisee rek saxal dana dem ci yàlla waxtu woo koy xool rek yaa ngi yëg ci yàlla te doo ko yëg ndax loolu ko li nga xam ne mooy misaalam am na ci saxaaba yi ku ñu daan wax Xamza Seydina Xamza dafa mas a daje Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma ca marché ba dal na naafaqa Xamza la tuut Xamza la day naafeq la boppam lay wax de moom mooy Xamza la moom muy wax Seydina Abubakar ni ko déedéet Xamza la naafeq la ma ne tax nga ne da nga naafeq mu ne damaa gis bu ma toogee ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day mel ni maa ngi jàlloog àjjana jàlloog safara jàlloog arasa kursi yëpp waaye bu ma ko jógee ba dem